d'être avec nous on se retrouve comme tous les matins tey tamit euh, dellu siwaat nañu ak yéen yeewoo fii euh, ci monument de la renaissance mbaa jàmm ngeen fanaane en tout cas ñun euh, yeew nañ ci jàmm ci jàmm bis bi tey tombé na ak mercredi 18 décembre 2019 exactement 8h41 mooy doog a jot ñu ngi ci profité nag di gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ca subaak léegi jot ngeen a déglu RFM matin mais en même temps seetaan ko en direct ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal Sénégal grâce à vous encore un sondage euh, qui vient de sortir euh, tegaat euh, euh place groupe bi euh, muy RFM muy télé bi euh, loolu yëpp nag c'est grâce à vous yéen a ngi koy doog a yëg ni loolee am na ni ginnaaw sondage bi amaat télévision Futur Média dëggal nañu encore ni mooy première télé fii ci Sénégal loolu ñu ngi koy rafetlu di leen ci gërëm yéen surtout téléspectateurs yu télévision Futur Média d'ailleurs daañu ci commentaire Euh, bu ca kanamee ndax dégg naa ñu naan kuy xalam di ca jaayu euh, barke ba yaay borom jaayo bi nag jaayu bi nag euh, yéen lañ ci nar a àndal puisque tey télévision Futur Média bu nekkee première télé fi ci Sénégal c'est grâce à vous nit nag mën naa louer lépp mën na nañoo louer chaise mën na nañoo louer table waaye ay téléspectateur kenn mënu koo louer moo tax yéen ci seen coobare saa yu ngeen xëyee di ngeen seetaan bëccëg bi di ngeen seetaan guddi gi di ngeen seetaan yooyu yëpp nag ay félicitation la pour pour yéen ñi nga xamante ni euh, yéenay seetaan sunu ay euh, programme donc merci encore d'être fidèle euh, ci programme yu télévision Futur Média alors tout de suite sans plus tarder li ñuy njëkkee mooy fàttaliwaat leen ni ba tey mën ngeen a bokk ci teranga Sénégal euh, mooy po bi nga xamante ni moom la ñu leen jagleel euh, depuis début décembre alors po bi nag c'est tellement intéressant parce que euh, kenn du ci perte am na tableau boo xamee ni bu ngeen duggee da ngeen di tànn ci tableau bi am na ay région yu ñu ca dugal ay région yu fa ne région bu ne am na lu ñu fa dugal ci wàllu teranga donc région bi nga tànn la nga fa fekk moom la ñu lay may mën na nekk cent mille mën na nekk deux cent mille euh, comme mën na nekk enveloppe euh, pour ngeen dem wuti ay jouets pour seeni doom euh, chez Obala teg nañu itam ay parures en or ay téléphone portable ay fone 11 teg nañu oto teg nañu chambre à coucher tout est là ci seeni kanam donc ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi nga xam ne ni mën ngeen cee woote benn par benn mu ngi affiché wu ci suufu écran bi oto baa ngee tege ñu gaare fële caabi jaa ngi ma yore yéen yéen a ko moom donc ñu ngi leen di xaar ku dugg rek ñu boole la ci teranga Sénégal comme ni ngeen koy gisee ci carte bi nga xamante ni euh, moom laa yore euh, donc ku njëkk a dugg ci fajar gi Euh, ci suba gi mën nañu ko jox loo xamante ni euh, mën na euh, seddal xolam alors li ñuy def mooy tàmbali ak xibaaru jaww ji di météo wu tey mercredi 18 décembre 2019 dañu koy njëkkee ak tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour découvrir température yi suba gi ci dëkk bu ne moo xam Dakar ak yeneen dëkk yu nekk fii ci Sénégal donc diggante 18 jàpp 19 degré daanaka ci la thermomètre bi yeewoo tey ji ci suba gi gis ngeen ni biir Sénégal mel ni Linguère euh, yeewu na tey ak température yu toll ci 17 degré Matam 19 degré 21 degré Tambacounda ci suba gi euh, Dakar itam 21 euh, degré Saint-Louis 18 degré euh, Podor 19 degré Ziguinchor 19 Kolda 15 et puis Kédougou yeewu tey ak température yi toll ci 21 degré comme Tambacounda ak Dakar Kaolack ak jurbel ba Linguère ñoom ñu ngi ci suba gi ci diggante 17 jàpp 18 degré bu ñu demee nag ba ci kanam thermomètre bi mën naa yéeg ba ci maximum yi daanaka ci dëkk yëpp météo di ñu xamal ni maximum yi mu ngi nar nekk diggante 35 Euh, jàpp 36 degré euh, boori Kédougou ak fi nga xamante ni moo di euh, Ziguinchor lu ko mooy cinq degré la nara a seetlu fi nga xamante ni moo di Tambacounda Matam Linguère ak fi nga xamee ni moo di Tambacounda donc Diourbel 33 Kaolack 34 et puis Dakar nar a yendu ak 25 degré Saint-Louis nar a yendu ak température yu toll ci 32 degré Podor dina yendu tey ak température yu nar a toll ci 33 degré bu weesoo thermomètre bi mën ñu jàll ci géej gi euh, baaxee leen euh, marée haute marée basse yëngu-yëngu ak tekk-tekkaaralu géej gi plus euh, waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax tey pour suñu napp mbokk nappkat yi alors marée haute bu njëkk bi biig la ko météo seetlu bi minuit une jotee marée haute bi ci topp dina ko seetlu tey ci diggu bëccëg gi bu midi 34 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ci fajar gi. na ko météo seetlu euh, bi 6h23 du matin jotee euh, marée basse bi ci topp dina ko seetlu exactement euh, tey ci ngoon gi bu 18h24 jotee et puis waxtu yi nga xamante ni moo nar a gën a baax wala moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi ci fajar gi la woon. 5h37 euh, jàpp 7h37 36 plutôt et puis ngoon gi diggante 18h44 euh, euh, jàpp 20h44 mën naa baax pour suñu mbokku nappkat yi et puis bu ngeen dee dem géej bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage jant bi nag bi dëntiwul benn yoon xëy na tey ci fajar gi bi 7h28 jotee dina tëddi guddi gi bu 18h44 euh, jotee donc ñu gërëm bu baax euh, waa service national météo bu Sénégal ñoom ñoo ñuy baaxee euh, xibaar yi ci yeewu leen bi ci suba gi ci télévision Futur Média pendant que je parle tonton Mag mën nga di indi yi ciy topp pour ma koy lire directement voilà qualité air bi tey indice bi dafa jaune alors lii mooy ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi fii ci Dakar capitale bu Sénégal mu jóge ministère de l'environnement alors bu dee dafa jaune ça veut dire que ngelaw li ñuy nooy euh, tane na bu verté ci lay baax mais bu jaune euh, dafa yem rek euh, mais terewul ñi nga xamante ni ñooy suivre traitement surtout xale yu sensible yi nañu leen moytul ngelaw li géejawaay indice bi dafa jaune Yoff indice bi dafa jaune HLM indice bi dafa jaune Bel Air indice bi dafa jaune Médina dafa jaune cathédrale ak biir Dakar dafa jaune donc euh, na ngeen euh, euh, moytu mais tane na par rapport ak yeneen jours yi nga xamante ni weesu nañu ko donc lii ñu ngi ciy gërëm bu baax waa ministère de l'environnement ci nat gi ñuy natt ngelaw li ñuy nooyi fii ci Dakar capital bu Sénégal liñ ciy toftal nag mooy waxtu julli yi njëkkee ko ak julli Euh, jullit yi alors fajar gi julleem euh, mu ngi toll ci 6 heures 12 du matin tisbaar 13h06 la ñu koy julli euh, takkusaan 16h20 euh, timis 18h49 euh, gee julleem mu ngi toll ci 19h57 pour suñu mbokku chrétien yi ci seen i bërëbu jullikaay yi ci jàngu yi alors cathédrale 7h ak 18 h la am messe martyrs de l'Ouganda 6h30 ak 18h30 église bu Saint-Joseph benn messe lay am tey ci ngoon gi bu 18h30 jotee donc loolu moo jëm ci waxtu julli yi bu julliti ak it ba suñu mbokku Euh, kër Thiène yi euh, fàttaliwaat leen ni bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa mën ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn nañu découvrir ensemble page d'accueil bu site bi euh, xëy na tey ak sondage bi nga xamante ni moo génn démb euh, sondage boobu nag dëggalaat na ni euh, télévision Futur Média comme RFM ñooy leader ci paysage audiovisuel bu Sénégal sànq rek moom la tàmbalee alors sondage la RFM et la TFM leader dans le paysage audiovisuel et surclasse leurs concurrentes li nga xamante ni jëm na ci sondage boobule euh, ki jiite euh, euh, agence boobule def sondage bi sekk na waxtaan ak site bi expliqué ci yan critère la ñu ko teg ak naka la ñu amelee woon seen enquête pourquoi télévision Futur Média nekk première télévision fii ci Sénégal elle est plus regardée d'habitude ngoon yi alors première émission bi jàkkaarloo la moo surclassé moo raw presque émission télé yëpp après Kouthia Show moo ci topp Kouthia Show itam moo raw émission télé après yeewu leen puis quartier général donc félicitation aux équipes euh, yu télévision Futur Média muy animateur euh, wala muy équipe technique on vous félicite euh, encore tey nag félicitation bi dama ko baaxee benn patron équipe yi rek laa koy jox animateurs yi ak techniciens yi ndax coow li coow li ñoom la donc félicitation à vous encore grâce à vous télévision Futur Média nekk encore leader ci paysage audiovisuel bu Sénégal beneen site internet euh, di site internet bu King FM euh, premier radio digital du euh, Sénégal alors site internet bu King FM dafay waxtaane artistes yi waxtaane people yi waxtaane sport waxtaane culture bu dee yooyu yëpp nag intéressé na leen mën ngeen di dugg ci site internet boobule et puis li ci neex mooy site internet bu King FM di ngeen am possibilité di ma déglu chaque jour à partir de 11h30 et puis di déglu itam rajo bi 99.4 ci bande FM bi mais bu ngeen demee ci bi di ngeen mën a déglu Euh, rajo bi di King FM euh, première radio digitale du euh, Sénégal ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex euh, ci euh, télévision Futur Média euh, bu leen fàtte c'est le moment ou jamais ngeen woote pour bokk ci teranga Sénégal seddale nag taamu naa ci kuddu yu njëkk yi ñu ngi leen di xaar kudd gu rek dinañu ko sédd ci teranga yi ñuy séddale cent mille deux cent mille bon chez Obala loolu lañ leen di may tey jii ci bis bi fii ba onze heures heure bi nga xam ne ni ci la ñuy jeexal yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal yéen a kaay yeeg seen i xët ñu koy xóotal ca ci revue bi ak rédaction bu télévision Futur Média mën nañu leen baaxee yéen kaay yooyu le ak seen i xët euh, tey yéen kaay yi kenn benn bu ci nekk ak li mu xëy xëtee euh, ci euh, mercredi bi évidemment dañu koy njëkkee ak l' observateur premier quotidien fii ci Sénégal l' observateur mi xëy xëte ak ki nga xamante ni moo di Séni Ndiaye il dit comment j'ai échappé à la mort li ci kaw nag mun mënu ma leen ko liiral ndax bët yi baaxatul dafa xaw a sew mais quand loolu moo nekk ci une bu l' observateur bu tay bi et puis ci une l' ñu ngi ci gis gis euh, nataalu euh, ki nga xamante ni moo di euh, président Malick Gakou alors Malick Gakou jamais grand jamais parti voilà donc loolu mooy enquête boo xamante ni yéen kaay bi amal na ko ci sur place politique de l'ancien ministre des sports di Alaaji Malick Gakou à lire ci l'observateur bu tay bi et puis l'état des plaintes de Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards loolee la ñuy lire ci xëtu yéen di l'observateur enquête lañ ciy toftal euh, mi xëy euh, enquête bi mu jagleel euh, enlisement du dialogue politique péril sur les locales ak citoyens yi nga xamante ni ñoo rang ngir dox ci yooyee nga xamee ni moo ne doon ay ponk ci yéenekaay bi di enquête yéenekaay bi ci topp laas la euh, manifestation devant les grilles du palais le DGI euh, démarre les auditions tey euh, loolu la yéenekaay bi di laas xëy xëtee tey ñu koy lire ci français le témoin wala témoigner comme ni ko Mamadou Mouhamed Ndiaye di waxee ñu découvrir une homme alors site bi ñëw ak kii mu tuddee nouveau de la rue ñoo lànk ñoo bañ éclipse des partis et des syndicats bërki démb amaloon nañu ab marche Guy Marius ak euh, compagnie euh, devant le juge ce mercredi le collectif appelle les Sénégalais à un rassemblement vendredi prochain euh, à la place de l'Indépendance beneen yéenekaay ak xëtam euh, tey ci mercredi bi série d'attentats terroristes dans le euh, dans la sous-région euh, le FBI accable trois djihadistes écroués à Dakar et puis beneen yéenekaay la ñuy découvrir une am muy le quotidien ñuy lire ci xët bi ci français manif au centre-ville pour la libération de Guy et compagnie ñoo lank veut l'indépendance loolu la ñuy lire ci français ci xëtu yéenekaay bi di le quotidien beneen yéenekaay di euh, source a xëy ak euh, yeneen yéenekaay yi ñu xëyee tey ak euh, mouvement bi ñu tuddee ñoo lànk ñoo bañ en route pour la place de l'indépendance déjà assiégée par les forces de défense et de sécurité vendredi pimenté maanaam ajjuma bu nar a la ñu nar a am yéenekaay bii di source a moo ñu ko xamal et puis ñu toftal ci Vox Populi découvrir ensemble UNAM tey ci mercredi bi même son de cloche ci xëtu yéenekaay bii di Vox Populi mouvement mouvement bi la xëyee ñoo lank qui cible la place de l'indépendance vendredi donc ce sera un vendredi pimenté comme ni ko yéenekaay bële waxee yéenekaay bii di Vox Populi loolee la wax euh, ngir dëggal rassemblement avec ou sans autorisation bi ñooñee nga xamee ni nar euh, vendredi prochain ca place euh, de l'indépendance qui est paraît-il quadrillé et puis beneen yéenekaay di record moom la ñuy jeexalee d'ailleurs premier quotidien sport fii ci Sénégal xëyëg Barça ak ak Real pour le fauteuil ak euh, euh, match yu am solo yoo xamante ni euh, di ngeen ko mën a gis ñuy gis itam ci une bu record tey Modou Lo ak Balla Gaye co-équipier d'un jour loolu moo nekk ci record bu tay bi li ci des nag dañu koy bàyyeek rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee ca kanam ci diggu bëccëg gi bu ñu ñëwee dinañu ko xóotal ci revue de presse bi ce va faire tout de suite mooy jël pause Euh, ci pose bi nag am ngeen possibilité woo ñu euh, bu ko defee ñu teral leen ci teranga euh, Sénégal ñu jël pose ak woykat boo xamante ni daf ñuy bëggal tous les matins ci rajo Futur Média ak it ci télé bi woy bu neex su ngeen yeewoo suba teel yaay dañuy déglu. RFM matin alors woy boobu daanaka euh, dafa dem ba dafa bokk ci euh, sunu ay euh, bëccëg ki ko woy nag mu ngi tudd Wuz Kali il fait partie de ces artistes sénégalais yoo xam ne nii miinuñu leen fii bu baax et pourtant c'est de c'est des porteurs de voix c'est des ambassadeurs et c'est des gens qui ont beaucoup de talent seen ay musique day féexal xol la preuve dañ leen di tegal woy woo xam ne ni bu dee jàmbaar nga comme ñun di yeew di daan doole ak di dóor boo ko dégloo da ngay gën a yokk jom nous offrons ce matin euh, Kali euh, bu ñu ko seetaanee ba pare dinañu enchaîner ak euh, publicité yi juste après publicité yi on se retrouve ci plateau bi la nga xam ne ni ñoo ngi ko installé fii ci monument de la Renaissance exactement 8h55 mooy doog a jot kon ñu déglu Wose Kali ak li ma leen yeewee tey ci suba gi ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal wala gi salamaale bundu mi joori maama wala mi salmini on mat xam naa ni war naa bég Euh, ndax ay maami tooroodo la am te euh, mu ngi fekk baax ca Podor googu euh, di ndokeel nag sunu xarit yi nga xamante ni ñëw xëy boor yooyu di ñu seetaan ci télévision Futurs média xam nga ñoom nag bu la lay tëggali gamb wala ñu lay bégal ak ay sàppaade mënoo bu dee gor nga ba noppi itam nga juddu Euh, sa xol day sedd ba loo leen defal ñoom gawlo yooyu euh, euh, da nga koy xep donc sama sama sama waa ji ci la juddu Madeleine Diaw mi joori maama et puis way na ci Seydou Kalidou mi nga xamante ni moo jiite nouveau produit yu groupe Futur Média ñu ngi ko ci ndokeel bu baax Abdoulaye Elimane Dia Euh, gorko Demet maire Demet euh, président Abdoulaye Elimane Dia monsieur le maire yow itam euh, ñu ngi lay ndokeel bu baax joori maama la rek wala salmini on waaw ah, kay bilaay dama ko làkkut moo tax dama ko prononcé nañ ma ko baal mu ngi mel ni rek ngay làkk anglais boo ko mal prononcé américain bi du la mere ndax déggoo ko noonu donc alpulaar bi tubaarkàll jaaw bàyyi rek mi joori maama Umu Salamata Tall madame Ngaydo moom tamit mi joori maama wala wala wala wala mi salmini on Oumou Tall nag li ma koy bégalee moom mooy Arndaya ko an Dieng xam nga loolu du ñëpp ko mën kaay am demal loolu rek la nekkee ak man Oumou Tall euh, madame Gaye ñu ngi ko ci nuyu tamit euh, di nuyu tooroodo yëpp ah ku nuyu Diouf ku ku ku lim Dioum euh, mais c'est un très beau titre qu'on a voulu vous offrir ce matin ak Kumba Gawlo Seck la diva à la voix man day du ma doyal ci ay yëfam ndax c'est une très grande diva moom nag décembre bi d'habitude du tal mag ñi xale yi lay gën di bëgg bégal la preuve xale yi nga xamante ni yorewuñu noonu seeni parents mën nañu dem ci loolee nga xamante ni mooy Noël enfant Kumba euh, Gawlo di ko amal chaque année 5000 euh, ngay fay euh, ba noppi itam mu woyal la nga am cadeau. donc le 25 décembre lay doon ca place du souvenir Kumba Gawlo en live pour les enfants comme chaque année elle va donc les enfants ci programme boobu la nga xam ne ni moom la tuddee Noël enfant. voilà ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média 9h15 euh, mooy euh, doog a jot euh, tey nag mooy bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel migrants yi c'est vrai que ba tey xale yaa ngi bëgg di sànni dem ba kaaw ndax Sénégal neexatul selon seen ay gëm-gëm ak seen ay situation on en parlera ci nu mu gën a yaatoo d'abord ak Kiara Ndiaye Géwél ci plateau di comme chaque mercredi ci parmi nous ensuite ñu recevoir. Euh, beneen journaliste boo xamante ni mu ngi bokk euh, ci euh, kuréel goo xam ni ñoom c'est des journalistes panafricaines ñu ngi ci bis bi di sensibiliser di ñaax xale yi pour ñu moytu sànni dem ba kaaw ci ay conditions yoo xamante ni baaxul donc Awa Mbaye Seck sera avec nous tout à l'heure ci plateau wu leen bi lu ko mooy Kiara Ndiaye Guewel on parlera de ces migrants là tout à l'heure tu l'as bien dit, c'est la journée internationale des migrants. Donc on aura l'occasion pour euh, faire une réflexion tous ensemble sur euh, les droits d'abord des migrants, mais aussi euh, de parler peut-être de nos, notre expérience ou euh, des gens que nous connaissons qui sont migrants aujourd'hui. Donc ça sera Euh, un moment de réflexion voilà Pape Cheikh. voilà à donc tout à l'heure dans la rubrique parmi nous. super moment de, de, de réflexion <laughs> lay doon ak euh, euh, Kiara Ndiaye euh, Guéwel et puis. Euh... ñu ñëwaat ci euh, soin du visage mais lan la nit mën a def ci kanamam euh, ba màggetaayam bañ a feeñ yenn saa yi ras gaaw ak seer nag ñoom seen ba ku la xool euh, sa màgget feeñ mais y a des yu ñu mën a def ci kanam ba nga xamee ni sa màggetaay du feeñ bon am na ñu bëri ñu ragal màggetaay donc Mado vous donnera quelques conseils tout à l'heure tu vois le bien-être ma poule oui mon coq donc maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak ñi nekk ci plateau bi Pape Cheikh comme ni nga ko waxee bu ci kanamee on va faire une démonstration de soin du visage bu élément bi jàllee nag ñu wan leen appareil yi nga xamante ne moom moo mujjee te nit yi war ko mën a jëfandikoo par rapport au soin du visage. dinañu ko testé kon ci plateau bi tout à l'heure ak euh, Madeleine Epu Sport ak euh, Mamadou Ndiaye comme tous les jours euh, de sport dinañu waxtaanee basket et puis coach suñu gaynde yi paraît-il il a été limogé muy Cheikh bu gaynde yi engagement yi am ci wàllu ci basket bi démb ba tey ñu ngi jot euh, xibaar yooyu ak euh, waa confédération fédération sénégalaise bu basket ñi nga xam ne communiqué bi ñu génne ay coppite ci euh, bopp direction technique nationale bi ak ki nga xamante ne moo fi nekkoon désormais coach ci gaynde yu jigéen ñi di Cheikh Sarr am na ay coppite yu ci am ci kanam dinañ ci ñëw dinañ waxtaanee aussi mercredi découverte dem découvrir xale yi nga xamante ni sport la ak ñi nga xamante ne dañu am ay jafe-jafe xel maanaam wàññeeku ci xel ñi am ay déficience mentaux ci ak li ñu leen di préparé ci olympiques yi ak ak ay olympiades yi nga xam ne amoon na ci week-end bi ñoom nan lañ koy dundee ci kanam dinañ ci ñëw def mercredi découverte voilà et puis ñu ngi xaar va nous rejoindre dans quelques minutes euh, tey nag euh, nit dof euh, mooy ñëw yi ak ñun ci plateau bi il nous parlera de ses actus ak yi muy préparé surtout spectacle bu mag bi donc il sera avec nous tout à l'heure ci plato bi Exidex on te retrouve puisque Teranga Sénégal rek la ñor ne yëpp ci xeetu cadeau Euh, bu doon sa sago dañu koy teel a libéré jox jox ko sénégalais yi nga xam ni euh, euh, télévision Futur Média première chaîne de télé fii ci Sénégal. c'est pas pour rien que les sondages l'ont prouvé ce matin Pape Cheikh Bolo alors je pense que ne yi ñoom ñëpp oto bi la ñu bëgg c'est le rêve de vous et moi ñun ñëpp moom la ñu bëgg a am mais très facile au-delà du numéro téléphone yi nga xamante ne moom ngeen di pour woote ci 88 628 14 14. 94 ah wala 88 628 anamu ay ca 76 76 22 22 numéro téléphone ñoo nekk nii donc à chaque fois que vous passez devant cette voiture saa yoo leen rombee rek liir leen wala ngeen woote alors am na ci beneen possibilité boo xamante ne aussi pour yéen la pour ngeen mën a gagner auto bu rafet bii euh, numéro téléphone bi ko defal ci portière arrière bi donc gis ngeen da ngeen envoyé par SMS T E R e Voilà, terre comme la terre, mais sauf le RE. Donc terre au 22 025. soo leen ko defee rek eh ben eh, yéen a ngi systématiquement ci biir c'est vrai que ñu bëri ñu ngi ma ñu ngi yónnee message di laajte est-ce qu'on est obligé d'aller en direct euh, ñu dégg ñu en ci tele bi wala ci rajo yi no yéen envoyé leen message rek une fois que ngeen envoyé enregistré nañ leen euh, seen numéro pour ngeen mën a bokk ci tirage au sort bi à travers cette première radio digitale du Sénégal moom mooy King FM 91.4 c'est l'une des plus belles de Bond FM sinon télévision Futur Média miroir du Sénégal ñaar yooyu tamit mën ngeen am possibilité euh, ngeen gagné ko RFM tamit ñu ngi ci biir bref lépp loo xamante ne rek support euh, groupe Futur Média la di ngeen ko mën a am. tout à l'heure Pape Cheikh defe wax na ko euh, ki ni dalal nag c'est le roi des stades particulièrement stade Iba Mar Diop moom nag la ñu fas yéene àndal tey ndekki at moom muy nit dof euh, muy ñaari date benn bi d'abord muy Sénégal Sénégalais yëpp mobilisé wu on vous montrera ce qui se prépare incha allah le 20 décembre foofu ci stade bi et puis comme on dit gan du mës tuuti puisqu'on est numéro un Pape Cheikh ci numéro 1 bi dinañ ci commentaire bu ca kanamee d'ailleurs ah. il faut ñu il faut il faut ñu commenter ci. il faut ñu euh, du ñu ne guleet nag groupe bi euh, surtout télé bi ak euh, rajo bi RFM ak télévision Futur Média nekk number one ci paysage audiovisuel bu Sénégal merci Exidex lii iPhone 11 la bu ngeen bëggee ma may leen ko da ngeen di bokk ci teranga Sénégal woote leen bu ko defee ngeen mën ko gagner autant de cadeaux que nous vous offrons Exidex nous a parlé de la voiture expliqué na leen principe ma ci teg dara li ma ciy def dolli rek mooy. tableau Teranga gis ngeen ni dafay rouler fu ma neex yóbbu ko et fi mu toll tembe ku dugg région boo tànn am na teranga bu ca ne enveloppe boobu nag su ma ko dajjee la ca ne yow yaa ko moom miin ngeen jeu euh, jarul sax ñu leen di fàttali principe yi euh, ñu ngi leen di xaar ci ak yeneen numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché benn par benn euh, ci suufu écran bi donc tonton Mag nañu permettre quand même yi composé par ndànk benn ci numéro téléphone téléphone yi bu ko defee ku dugg léegi euh, ñu boole la ci Teranga euh, Sénégal alors tey ci mercredi bi euh, kan moo nar njëkk a woote ci yeewu leen bi ba gagné yi ñuy maye loolu la ñuy xaar léegi nii ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 regardez. région de Diourbel région de Matam Ziguinchor ainsi de suite euh, Sénégal nag dëkku teranga la euh, ku ne xam ne ni région boo ci dem rek di nga am teranga euh, boo xamante ni mën nga ka fa fekk te lang fa fekk yéen yéen a ko moom donc ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ay ayca nañu jël ki njëkk tey ci yeewu leen bi njëkk ko bégal ci teranga yi ñu leen di baaxe ci teraanga Sénégal ay ca 88 628 22 22 dama leen di may batma bu ko defee ngeen tàmbali di woote ku dugg rek. allo ñu euh, teral la. allo euh, allo. allo. allo allo. allo. la. allo. allo. allo. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. kookan la xaadim sa daal rafet na de. glissé na ne tey da ngaa ah. ba def sa ak assorti baal ma caméraman bi may filmé lay gërëm di ko waxal lu baax xam nga damaa ñàkk ki ñaan daal la muy service dafa toilette taxaw di ma filmé ak jegatu cuir bi. Ah. yow dootoo dellu Côte d'Ivoire de. ah ah là là Khadim ah. Cissé il est très beau ce matin. avec son petit bonnet euh, bu ndaw bu tuuti bi ne euh, ne fi mu ne yaa ngi mel ni Wally Seck barki yonent bi allo. allo allo oui. baal ma de sama caméraman bi laay wax lu baax noo tudd ak fan ngay ah, wootee wax nga dëgg noo tudd ak fooy woote Kumba Dieng. Kumba Dieng na nga def Kumba Dieng. Kumba Dieng fooy wootee. fan ngay woote Kumba. ah yaa ngi Sicap d'accord Sicap Baobab ngay wootee ah. alors Coumba Dieng parmi ah. yi ñu teg yëpp ci teranga Sénégal lan nga ci bëgg a gagné oto bi ah. chambre à coucher bi parure yi wala téléphone bi loo bëgg a gagné eh, lu baax rek nga bëgg lu baax na kon boole naa sa tur ci tirage lu baax yu baax yi yàlla na nga yàlla na nga gagné oto bi alors Coumba léegi dama lay bàyyi nga tànn may ma ma Coumba Coumba danga may man tamit may wax suturaal ma rek. <laughs> waaw léegi tànnal région bu la neex. coupé naa tànnal région bu la neex. Saint-Louis. Saint-Louis lan moo tax nga bëgg a tànn Saint-Louis. Saint-Louis. doomu Ndar la. ah doomu Ndar nga fan nga dëkk ci Ndar. sama turandoo doomu Ndar la. ah sa turandoo doomu Ndar la très bien moom fan la dëkk ci Ndar. je crois si loolu ah. xaw ma ko ah. ah xamuloo ko d'accord amul problème léegi ma ibbil la ma de saint fekk naa ci enveloppe ma xoolal la ko alors Koumba Dieng. Hmm. enveloppe bi ma fekk ci Saint-Louis xam nga ñaata moo ci ne te yow yaa ko moom. Hmm. cent mille francs Koumba allah macha allah kay félicitations. yow yaa ko moom ndar ji nga diwu la yaa ko mu ah. génneel la ko ubbi enveloppe bi fekk ci ñaar fukki junni xaalis dañ koy compter 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 félicitations Koumba. merci beaucoup. xanaa kontaan nga. waaw kontaan naa très bien tamit jour la. sama goro day ah souhaité ko joyeux anniversaire goro yi ci sëy bi la ñu bokk. goro bu baax xale bu baax mu ñal jëkkëram. très bien ma bëggoon ko souhaité joyeux anniversaire yàgg di la suivre nag macha allah. jërëjëf jërëjëf Dieng. macha allah naa trop. ah man maa gën a kontaan ci ci lii ñu la teralee tey. waaw parce que ko daal. merci jeex na attente yàgg ko quand voilà kontaan nañu da koy jar rek da koy jar merci <laughs> bul raccrocher comme ça ñu jël sa euh, ay coordonnées nga mën a jot ci xaalis bi ñaar fukki junni yi et puis on souhaite un bon anniversaire sa goro boobu la nga xam ne ni euh, moom nga gërëm waxal ko lu baax donc enveloppe bu tollu ci 100000 euh, la fekk ci région de Saint-Louis ayca joxaat leen ma beneen téléspectateur très rapidement balaa ñuy tàmbali ak sujet yi même bu dee dañoo toog di wax man ngeen ñoo dagg woote ku dugg rek ñu jox ko enveloppe Euh, bi euh, bi wërsëgam na voilà ku ne ak sa wërsëg euh, donc enveloppe yaa ngi ci biir ay teraanga ci région yi donc région bu ngeen tànn rek lu ngeen fa fekk yéen yéen a ko moom ñu mayaat beneen téléspectateur mu dugg ci télé bi ñëpp a soj maa ngi ñanduwaale sax ndax ngelaw li ah. allo yow la Fatma Fatma Mboro. Fatma naka. Diallo Mboro. ah Fatma Diallo naka waa Mboro. ñu ngi fi ñu ngi fi. nu ngeen def ak poussière Mboro. waaw waaw poussière na moom. waaye ci ñàmbi Mboro. waaw alhamdulilah. suufu Mboro daa baax moo tax seen mbay lépp lépp a neex. macha allah wallaay lépp a baax. ñàmbi Mboor Mboro batañ sa Mboro. lépp kañ. yaa ngi fu neex naka waa Mboro mbaa ñu ngi ci jàmm rek. ñu ngi ci jàmm ñu ci jàmm baax alors dis-moi lan nga bëgg a gagné ci yi teg oto bi euh, chambre coucher bi. Ah, wax oto bi nga bëgg a gagné. waaw. yàlla baax na yàlla na nga ko gagné. yàlla surtout bokk na ci euh, tirage bi léegi dama lay bàyyi nga tànn benn région. teraanga boo ci fekk yaa moom Diallo Diéry. waaw région de Dakar. lan moo tax nga tànn région de Dakar. waaw parce que kër waa Dakar la. Ah, sa borom kër waa Dakar la moom mu ngi dakaar yaa nga Mboro wala yéen ñaan ñëpp a ngi Mboro. ñun ñaan ñëpp a ngi Mboro. yéen di Mboro wante. mu lay Mboro ko koy Mboro. <laughs> chéri Mboro ma loolu la neex. waaw ngi Mboro wante. loolu am na. mu ngi lay Mboro ko koy Mboro. bu baax. kon vive Mboro. et les Mboro. <laughs> et eh, alors tonton Mac faut que tu arrêtes les enfants sont à l'école et puis man je ne suis responsable que de mes propos fi ngeen di yóbbu seen xalaat yi vous êtes vous êtes responsable moi je parle de Mboro. alors Mboro Diallo Djeri Mboro. waaw ubbil naa la région de Dakar. Dakar fekk naa fa enveloppe. ibil naa la enveloppe bi Diallo Djeri. waaw waaw enveloppe bi fekk naa ci cinquante mille. cinquante waaw fekk naa ci cinquante mille te yaa ko moom. ah c'est pour toi foofu ca Mboro. jeena bul coupé ñu jox la euh, mademoiselle cadeau comme ça ngeen coordonné mu mbooro la nga mbooro ko nga jot say cinquante mille félicitations merci d'avoir appelé Aïcha téléspectateur bu dugg rek euh, di nga am même bu tableau yëpp jeexee léegi dañuy remplirat la ca ne yëpp yéen ko moom euh, da ngeen di composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ni euh, ñu ngi euh, affiché wu ci suufu écran bi soo qu'on va tout de suite mooy dañuy jàll ci wàllu tàggat yaram quand même ak Modou Ndiaye tey loo ñu indil Ndiaye ci sport bi ngay waxtaanee chaque jour. oui tey de dañuy ñëw ak xibaar bi nga xam ne ñu ngi ko jot depuis démb ci guddi gi ci ngoon gi incha allah ci la waa fédération sénégalaise bu basket daal joxe xibaar que ni kii di Moustapha Gueye dafa dafa ji wuutu kii di Maguette Diop mi nga xam ne moo direction technique nationale ci wàllu basket bi Maguette Diop nag gannaaw juróomi at yi nga xam ne ñu ngi ci bopp direction direction technique nationale euh, kii di Moustapha Gaye nekk fi coach bu ci wàllu góor ñi ci wàllu basket moom tamit expé am expérience lool ci basket fii ci Sénégal jël euh, Coupe d'Afrique ak euh, jigéen ñi ci atum 2015 moom la mujjee am comme moom moo jiitu kii moo wutu kii di Maguette Diop ci bopp lii di direction technique nationale beneen information bi Pape Cheikh mooy li nga ki nga xamante ne aussi mooy Cheikh Sarr moom tamit jiite woon gaynde yi ci Coupe d'Afrique bi ñu génn ci Afrobasket bi nga xam ne fii lañ ko doon amalee fii ci Dakar ci gaynde yu jigéen yi moom euh, dañ ko daal di euh, jële ci bopp euh, coach comme équipe coach ci Lyon yi keneen ki ki ko war a jiitu nag dañ ki ko war a wuutu dinañ ko xam ci fan yii di ñëw en tout cas liñ ci mën a wax rek mooy ñaari coppite yooyu la ñu seetlu ci basket bi temps yëpp ñu ngi ko doon laam-laame mais démb dañ ko officialisé gannaaw benn communiqué ak gannaaw benn réunion bi nga xamante ne waa fédération sénégalaise bu basket amal nañ ko Pape loolu ñaari xibaar yooyu lañ ci jot moom la presse bi xëyee mu nekk li nga xamante ne gisoon nañ ni war ko a partagé ak téléspectateurs yu télévision gannaaw ba ñu indi ci ay yeneen xibaar yu gën a gëstu yu gën a leer. mu ngoog donc loolu moo jëm ci actualité boobu nga xam ne ni euh, moo lëmbee wàllu tàggat yaram fii ci euh, Sénégal. Mm-hmm. et puis euh, mercredi découverte. Mm-hmm. voilà mercredi découverte dañuy ñëw ci ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllu tàggat yaram waaye nekk ay ndaw te tamit seen xel taxu ko béy lool maanaam am ñi nga xamante ay jafe-jafe ci wàllu xel euh, weekend bi ñu génn amoon nañu euh, li nga xamante ne mooy euh, olympiade mooy li nga xamante ne ñu préparé wu ñu ci am ñetti at ba am juróom-ñaari at dañ leen doon tàggat ñoom tamit di war a wax ne am nañ place ci wàllu tàggat yaram defaloon nañ fa benn reportage ngir lu tollook san jeunes yi nga xamante ni dafa bokk nañ ci olympiade yi nga xamante ni dañuy préparé JOJ yu fas yéene am fii ci Dakar fii ci Sénégal ci atum 2020 mën nañ leen dégtal reportage bi te ñëwaat ci plateau bi spécial olympique Sénégal moom ci week gi nag kuréel gi nga xamante ne moom moo koy saytu dajale na téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo xamante ne dañoo ame laago ngir ñu amal ay consultation médicale naka noonu itam ay olympiade ngir gën a mën a préparer ëllëg. médical loolu démb la woon tey ñu am fii li ñuy owee euh, young athlète mooy activité sportive pour tout tànk yi nga xam ne ñoom lañu am ñaari at ba juróom ñaari at bugg a wane ne ñoom ñoom tamit mën nañu bokk ci sport bi parce que am na ñu nga xam ne mën nañ ko dañ leen a war a jàppale rek ñu wone ko te jàppale bi nag daf leen nar a tax dans quelques années ñu amee huit dix ans ñu bo mën a bokk ci compétition yi euh, santé bi itam bi ñu amoon naka lañu fu ñu toll ci seen wàllu yaram est soxla nañu ay euh, spécialité wala déet donc démb am nañu euh, ñetti téeméer ak euh, juróom-ñett fukk juróom-ñaar xale nga xam ne xool nañu seen yaram. xale yi natt seen bopp nag ci lu toll ci juróom-ñaaru xeetu tàggat yaram loolee nag ngir rek ñu mën a xam ñan ñooy dooni futur champion yi. athlétisme football ak football unifié mooy ci équipe football yi am ñu xale yu am laago xel xamal xale yu amul laago am na ñu sax championnat de football unifié am na ñu itam euh, basketball volleyball ñu ngi def natation ñu ngi def tennis de table ak ñu ngi def euh, équitation mooy euh, dawal fas ñun li ñu bëgg mooy préparer suñu xale yi tey ba nga xam ne ay jagad jogante international su amee par exemple 2023. ñu ngi leen di commencer tàggat di leen pare comme ça 2023 ñu mën a participer ci euh, ni mu gënee daal. special olympique Sénégal nag li ko tax a jóg moom mooy xeex ñi nga xamante ne dañoo amee laago ñu bëgg leen a génne ci wàllu tàggat yaram tey jii nag boo xoolee ñu bëri ñu ngi ciy bokk. mu donc euh, muy euh, lu am solo loo xamee ni Mamadou Ndiaye demaloon nga ñu fa euh, ay xale yoo xamee ni danoo amee laago ci xel. Mhm. ñu jël leen boole leen ñu yëngu ci olympiade. Mhm. c'est des êtres humains comme tous les autres enfants. voilà loolu la ñuy wax ñoom seen objectif mooy xeex discrimination bi nga xamante ne xale yi amee laago dañ leen koy def ci wàllu tàggat yaram te loolu loolu waral ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu woowu daan ne loolu warul mën a am ndaxte xale yi ñoom tamit seen place ñi ngi ci sport bi wax na ko discipline yi ñuy def football ak ay euh, tennis de table basket ak yeneen discipline yi nga xam ne sportive te dafa nekk lu am solo loo xamante ne xale yi nañ ci gën mën a tàggatu waaye tamit ñu bañ euh, def seen xel ni dañ leen beddi ci société te wane ni sport dafay boole te loolu lu am solo la ndaxte euh, te na ndaw yi ñi ngi am lu tolloog ñetti at ba ci fukki at ak juróom-ñaar te loolu lu am solo la wax na ko lu tolloog 150 jeunes yu nga xam ñu ngi woon ci compétition boobu noonu ngir gën a tàggat xale yi solo Pape Cheikh loolu waral ñu gis ni euh, mercredi découverte ñu jagleel ko ñi nga xamante ne euh, seen place ñi ngi ci sport bi mooy xale yi nga xam dañu am laago voilà donc loolu lañ nga ñu indiloon ci euh, mercredi découverte ak euh, euh, des jeux olympiques organisés pour ces enfants là des olympiades voilà merci en tout cas Mamadou Ndiaye 9h35 mooy doog a jot mën nañoo jàll nag ci bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel migrants yi journée international des migrants permettre Awa Mbaye Seck journaliste fii ci groupe Futur Média di ñu rejoindre moom it dafa àndandoo ak yeneen naw la journaliste am Euh, ñu teg euh, kuréel gu mag goo xamee ni euh, ñoo ngi ko tuddee réseau des journalistes panafricaines ñoom nag li leen soxal tey mooy ku ci ne dëkk ba nga dëkk ci Afrique nga jéem di sensibiliser ndaw ñi surtout ñu éviter façon bi ñuy bëggee dem bitim réew jël ay gaal faatu ci jaar ci ay yoon yu compliquer yoo xamante ni yenn saa yi xaru sax a koy gën mais on en parle d'abord avec celle qui est parmi nous di Kiara Ndiaye Guewel Exactement. En tant qu'immigré italienne au Sénégal, c'était normal là, que je parle de la journée internationale des migrants. Ah, ah, c'est normal, je suis immigrée, voilà. Mais il faut, il faut d'abord contextualiser un petit peu pour expliquer aux gens de quoi on parle. Donc c'est une journée qui a été proclamée par euh, l'Organisation des Nations Unies le 4 euh, décembre 2000 et euh, qui commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de euh, tous les travailleurs migrants et membres de leur famille du 18 euh, décembre 1990. Et c'est une journée qui a été, euh, qui a été instituée afin de dissiper les préjugés sur les migrants et sensibiliser l'opinion publique à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et social au et du pays de provenance des migrants et euh, par rapport au pays où ils ont décidé euh, de vivre. Une journée dédiée à l'information sur les droits de l'homme et sur les libertés fondamentales des migrants. Donc, comme on le sait, on parle souvent, pas cher, euh, des thèmes liés à la migration. La rubrique Parmi nous est née un peu euh, sur, sur parce que ça fait quand même plus de quatre ans qu'on essaie, à travers la rubrique, de traiter la thématique de plusieurs points de vue. Parce que quand on parle de migration, euh, surtout les, derniers, euh, les dernières périodes, on a tendance à montrer tout ce qui est négatif concernant la migration. Mais la migration est très vaste, très large. Donc euh, moi, ce que je voudrais, c'est surtout euh, se focaliser peut-être sur les aspects positifs. Bien vrai que cette journée est très importante parce qu'on parle des droits. souvent euh, on sous-estime les, les, les, côtés droits des migrants, donc je trouve que c'est important. Euh, J'étais hier à atelier euh, avec les radios euh, de la région de Dakar et Thiès pour parler avec les journalistes euh, justement de comment cette thématique est traitée. Et moi, je soulignais par exemple l'importance du langage. Quand on traite la thématique de la migration, souvent on utilise des termes qui ne sont pas appropriés. exemple. On parle souvent de migration clandestine. Il faut le dire, c'est euh, une façon qui n'est pas correcte de traiter la migration. Au lieu, par exemple, de parler de migration clandestine, il faudrait parler de migration irrégulière parce qu'il n'y a pas une migration qui est clandestine. Le mot clandestine, euh, on l'utilise, mais c'est pas bien. Et euh, pour alimenter les débats sur le plateau, euh, j'ai choisi non pas un reportage parce qu'on a euh, fait tellement de reportages sur la migration, mais j'ai choisi un clip. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. C'est un clip de euh, Amadou et Mariam euh, avec euh, featuring Manu Chao. Oui. Et le clip, ça s'appelle Sénégal Fast Food. Donc on le lance, ça parle en quelque sorte de migration. album la chanson un dimanche à Bamako Amadou euh, Mariam ou Myriam euh, ak euh, Manu Chao un titre euh, qui parle d'émigration ou d'immigration. Exactement parce que euh, parfois la musique et je dirais même euh, les plus des discours qu'on peut faire. Mm-hmm. Dans la vidéo qu'on vient de voir en fait on parle de de la journée hein des de jours d'une personne qui décide de partir et vraiment à un niveau що voilà, quand il arrive. ce qui est triste. Ah, mais, mais bon, ça, ça ouvre à beaucoup, de réflexions. Mais à niveau iconographique, j'aimais beaucoup parce qu'il y a tout ce que, en fait, beaucoup de gens se, peuvent se retrouver dans, ces parcours, de la personne euh, que, qui est racontée dans la vidéo. Mais au-delà de ça, voilà, comme je disais tantôt, je pense qu'aujourd'hui, donc cette journée, ça peut être une occasion pour euh, essayer de voir les côtés positifs hein, euh, de la migration migration plutôt qu'à chaque fois se focaliser sur, comme on a l'habitude, les risques liés à la migration irrégulière, etc. On en parle, je pense, euh, suffisamment. Euh, peut-être euh, il faudrait renouveler un peu les modalités qu'on utilise pour arriver à plus de mots, mais il faut dire aussi que la migration, c'est à la base une richesse. D'accord Et euh, c'est une richesse. J'aime plutôt parler que de migration des mobilités humaines. Donc c'est ce que je disais au début, euh, les choix des mots c'est très important. Et euh, en tant que migrant, hein, donc euh, je, je, me sens liée à mes frères et mes sœurs sénégalaises qui ont décidé de quitter, qui sont partis, qui ont émigré. Chacun a ses raisons en fait. Mm -hmm. Donc c'est ce qui est important. Et euh, les droits le droit de partir, de pouvoir voyager, c'est un droit fondamental qui mhm. devrait être euh, voilà, un droit fondamental de chaque personne. Euh, ce qui compte, je pense, aujourd'hui, c'est informer, informer les, les gens, euh, afin qu'ils puissent choisir en toute connaissance des causes. Parce que finalement, le libre choix, ça vient, ça revient à chaque personne. Moi, ce que je conseille, ou j'ai essayé de conseiller euh, au public à travers la rubrique Parmi nous, c'est de se rapprocher à ce qui vient dans notre pays, euh, aux migrants, d'une façon différente, d'échanger les regards, d'échanger les points de vue. C'est très important parce que derrière les numéros, les chiffres, les statistiques auxquelles nous sommes habitués, il y a des personnes avec une vie, avec des rêves, avec une famille. Donc c'est message que je veux lancer aujourd'hui, c'est celui-ci, vraiment de retourner aux personnes. Donc personne et non pas numéro. Et pour les gens qui sont intéressés, je rappelle qu'aujourd'hui, à la place du souvenir, euh, il y a une, euh, une, journée, euh, un forum organisé sur euh, la migration et surtout sur les possibilités euh, qui s'ouvrent aux jeunes, donc avec pas mal des institutions et des organisations qui vont exposer hein, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc euh, les jeunes peuvent aller pour voir euh, ce sont lesquelles les possibilités aussi et surtout pour voyager dans un cadre légal. Voilà, euh, voyager dans un c'est ce que nous conseillons à tout le monde. immigration choisie, pas choisie, on va continuer d'en parler puisque nous recevons tout de suite Awa Mbaye journaliste à RFM Radio Futur Média Awa Mbaye ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi tey di bis bu am solo ñu tuddee ko journée internationale des migrants qui aura va euh, on en tout de suite avec ces euh, yi nga xamante ni depuis très longtemps dañuy bëgg di sànni di dem ba kaaw euh, balaa ñu koy développer da bokk ci kuréel goo xam ne ni ay journalistes yu nekk ci ay dëkk yu uute ñoo dajaloo doon journaliste panafricaine di sensibiliser nit ñi ci ay fléaux yu mën a sonal jigéen mën a sonal ndaw ñi vous le faites depuis très longtemps chaque année ak thème bu ngeen di tànn pour cette année vous vous di euh, du ngeen dajaloo mais kenn ku ne ca dëkk ba nga ne euh, di nga dem ci média yi pour sensibiliser nit ñi euh, ci thème bu am solo bi awa tout à fait euh, Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu di la gërëm euh, di euh, nuyu tamit ñi nekk ci plateau bi di wax ne invitation bi am na importance parce que comme ni nga ko waxee réseau les panafricaines mm. Pape Cheikh Diallo dafa nekk kuréel goo xamante ne dafay dajale journalistes yu jigéen ñi nekk ci Afrique mm. ñu nag sosoon ko en 2017 Casablanca suñu siège kon mi ngi fële ci deuxième at mu jot dañuy tànn poñ pour mm. waxtaane ko bi ñu fa mujjee 2018 Casablanca ñu ne nag fii ba déwén li ñuy waxtaane mooy les questions migratoires li nga xamante ne dafa intéressé Afrique entre intéressé àdduna bi wërngal këpp ñu ne nag gannaaw association la te association yi dañuy joxe xaalis di séddoo ak nu mel noonu mhm. ñu ne ñun ku nekk ca dëkk ba nga nekk ca la ngay liggéey dañ la caa dañ la caa ràññee mhm. kon boo demee delluwaatal yow ci kàddu gi nga am nga jéem a ñaax sa askan ca bureau ba ngay liggéeyee ba ñu mën a xam lan mooy njariñu wax ci wàllum immigration maanaam tukki jóge ci dëkk bi nga juddoo génn dem ci beneen dëkk tey bu ñu xoolee li nga xamante ne moom la Ciara euh, wax euh, jëm ci li nga xamante ne moom mooy immigration lii di Nations Unies. moom la wax nee na nit ku nekk fa nga dëkk nga xamante ne euh, wàllu migration la na nga wax ne foofu nga dëkk foofu ngay dund nit ña nga ànd tamit da bokk ak ñoom. kon yow c'est ci foofu la. c'est ça kon siyaara mi kon. Euh, sénégalaise la. voilà sénégalaise la kon bu ko Nations Unies fekkoon fii da koy filmer uh-huh. dugal ko ci chaîne am ne tey lii lañu soxla migrant ku nekk fa ngay dund na nga jàpp ne yaak ñëpp yéen ko bokk. Ah, ci loolu nag dinañ wax ah, ci li nga xamante ne nag mooy tukki bi jaar yoon ak tukki bi jaarul yoon ndax tukki bi jaarul yoon bi fi mu ne lëmbane dëkk bi ñu bëree ngi dam egg waaye tamit am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi dem egguñu ñii di jànkonteel ay jafe-jafe si yoon yi lool itam mu metti njaboot yi ndax ñoom itam ci ay njaboot la ñu jógee ku sañoon sa doom bu juddoo ba màgg dina tekki jariñ la jariñ say mbokk waaye itam am na ñoo xamante ne tey ñi ngi des ci géej gi mhm. ñii ñi ngi des ci euh, désert bi par chef ah. mu nekk des drames des mhm. drames sociaux yoo xamante ne euh, tey ñu ne ñun journalistes yi dañ cee war a wax nag ah ah parce que quelquefois Pape Cheikh façon de traiter l'information dina indi ay ay xiini miini yu bëri ba tax ñun euh, ba ñu demee daaw dañ woon nañu fexe ba lépp loo xamante ne mythe la lépp loo xamante ne gis-gis bu ñaaw la ñun journaliste yi nañ ci euh, dox mhm. daat ci wax ngir mu soppeeku façon bi ñuy traité information ndax Pape ku nekk Italie moom journaliste boobu ni muy traité ki nga xamante ne jóge na ci frontière bi ñëw fekk ko ci dëkk bi bokkul ak ak man mi nga xamante ne ñëw naa maa ngi koy gis kële dafay jàpp ne dañ ko envahir journaliste bu buy wax danaan kii daf ñu envahir te man su may wax dama naan dem beeg dikk bi ba àddina sosoo ba léegi ñu ngi koy def kii dafa dem ci beneen dëkk parce que daf ko neex traitement bi du benn traitement bi du benn cible bi du benn du benn déggin wi du benn waaw kay mi ngi noonu maa la ko wax moom moo tax nag yoo xam ne daal day leeral sama xel mi je te <laughs> jure ah. léegi nag moo tax Pape Cheikh ñu ne woon ñun journalistes yi gannaaw bari nañu. ci Afrique 54 pays en 2018 daaw bi ñu demee on était 50 pays. Mhm. journalistes toutes des femmes ñu ne ku nekk boo delloo sa dëkk nga la waay na wax. Mhm. lu amal solo immigration. Mhm. immigration na ci dëkk yi wax état yi wax. parce que Pape Cheikh Diallo am na ñoo xamante ne peut-être ñu ngi génn di dem neexu leen bu ñu sañoon ñu toog seen. bu ñu sañoon toog kay et puis yoon yi dafa metti bijou balaa ngay doon déglu thème de la semaine. Euh, bu ay nit euh, yuy nettali fi ñuy jaar sama yaram da doon daw après te ay jigéen ñoo doon wax. à jigéen bii di wax nii li mu dund ci métit ci yoon bi entre ndox mi désert bi c'est-à-dire dem na bay expliquer ni euh, euh, bi mu xasee ba dugg ci gaal bi sax gaal ak yoon bi ni mu méttee mm-hmm. moo gën a neex li mu daj ci yoon bi ci désert bi ak ci suuf si après ma ni kii jigéen la man góor laa mais moom li mu dund man mënumaa dund xaaj bi ci rek bëgg dem bitim réew. Mm-hmm. immigration ñu ngi siy wax. ñu ngi leen di wan histoire ñi demoon. depuis toujours boo jaaree si yoon bi lii moo la siy dal. j'aimerais savoir yéen bi ngeen jógee si seen euh, daje boobu lan ngeen xalaat ni moom ngeen mën a wax nit yi pour bu ñu bëggee dem tukki dëgg la am euh, mun nga dem feneen sa wërsëg ci jéego fa mais nan lañ mun a def pour convaincre leen pour ñu jaar ci yoon bu normal bi lan ngeen jàpp yéen. jaar ci yoon bu normal bi euh, bi ju balaa may ñëw ci loolu. Mm-hmm. maa ngi dégg bi mu defee statistique mhm. dafa ne boo jëlee ci 272 yi nga xamante ne ñëpp ay migrants lañu mhm. boo jëlee euh, ñi nga xamante ne 38 pour cent ay jigéen lañu ay jigéen yu ëmb ci yoon bi ay jigéen lañu ay jigéen yu wasin ci yoon bi ay jigéen yu yóbbaale pour cent du moins donc ñoom ñëpp ay jigéen lañu ah ñu ngi ànd ak seen i njaboot et puis le drame par cher dañuy dem ànd ak seen i doom yu ndaw ay parental eh. keroog rek ci témoignage am na ku ne xale bu am at mhm. mu yam ci géej gi donc loolu souhaité defuñu ko kenn. lu euh, metti la ci loolu nag euh, Bijou ñun dañ ne daal nañu wax. wax boo xamante ne du dak xam nga nag euh, actualité dafa nekk loo xamante ne lu am sens la ci wàllum journalisme. Mm-hmm. bis bu jot ak la cee xew. Mm-hmm. at mu jot ak la ñu war a wax. waaye tamit des fois ñu ne ku nekk boo demee yow sa dëkk yow na nga fexe yow loo wax rek ñambaas li nga xamante ne moom mooy immigration clandestine comme sa ndaw ñi. Mm-hmm. ñoom seen bopp ñu xam. li nga xamante ne moom mooy risques yi parce que boo xoolee ñun balaa ñu ciy wax faawu gaal suux ay mhm. nit mhm. ñàkk seen bakkan waaw faaw mu am catastrophe. Mhm. nit ñi doog ci wax. médias yi ñu commencé di def ay invité nit ñi ñuy def micro trottoir euh, micro trottoir ak yooyu yëpp. Mhm. ñu ne nag bu ñu xaar ban ne këtt ne jon la rek. ñu ñu doog a wax nañuy wax chaque jour chaque jour barki dem euh, Pape Cheikh dama jaar euh, si ses ci foire ba. Mhm. benn xale bu góor ndeysaan marchand ambulant daan may jaay yére ba pare ma a ko non man yére bi jënd naa ko bi ma jógee fële yàggul. Euh, benn dëkk mu ne ma ah man de soxna si man génn dëkk bi rek man laa bëgg wallaay xale yëpp bëgg a dem ma ne ko ma ne ko sëñ bi xam nga tukki bu njëkk ba mit la woon mhm. ndax da nga daan dam te sa morom du dam léegi liggéey yi xew Pape Cheikh ñun suñu papa yi doon doon liggéey ba retraité duñu tukki te léegi façon liggéey yi xew da ngay dem tukki di dem qui fait que ñëppay nekk waaw mais mais mais ils ont toujours cette envie de c'est ça de de de vouloir partir c'est ça ki nga euh, xamante ne dafa pour man dafa wàññeeku dañatu la euh, mit bi dafa wàññeeku rek parce que am na ay xale yoo xamante ni ba tey mhm. euh, tukki rek mbaa dee la ñu et te loolu baaxul mais am na ñoo xamante ne nag bu ñu demee waxuñu kenn bul dem mais yoon yi ñuy jaar baaxul awa mbay waaw kon euh, waajooju ma ne ko am na ñoo xamante ne tey ñu ngi dem nekkuñu faatu mm. faatu nekkuñu moodu moodu mais dañuy dem tukki ñëwaat bu ñu demee ñëw dañ ne fee nag la fa xew nag nit ñaa ngi commencé métti wallaahi donc Pape Cheikh man su may wax ci immigration xam naa ko parce que man doomu faatu faatu laa su ma toogee fii di wax ak yow jàkkaarloo ak yow <laughs> faatu faatu na ma ma jàng kon man xam naa lan mooy njëriñu immigration mm-hmm. waaye na jaar ci yoon mm-hmm. na jaar ci yoon mm-hmm. boo demee wootee nit ñi di la gis téléphone yeeg yooyu ñu xam ne kii kan ma ngi ci jàmm mais sa doom dam nga toog juróomi at. xamoo mm-hmm. mm-hmm. déggoo ko ñaari at déggoo ko. Pape Cheikh ñu wax tamit ci autorité yi. Mm-hmm. ndax xale yi bu ñuy dem di mbëkk naan. dee moom a gën a dund. nañu xoolaat nag li nga xamante ne moom mooy politique emploi bi. nañuy fexe di jox xale yi euh, liggéey ndax loolu dafa war par mhm. force la loo mhm. xamante ne xale yi ñu ko par mhm. force la ñu jox leen un travail décent boo xamante ne dafa euh, sàmm seen àq ak seen yelleef ngir xale yi mën a toog tuuti et bi xale yi di jóg di ànd ak candidat di supporter candidat di xeexal candidat di xulool candidat xale yaa ngi forox na ci tali yi dañu am amoon yaakaar ñu candidat bi wutal leen liggéey moo tax xale yëpp màbbandoo ci candidat euh, ba candidat boobu mën a ndax am na ñu toog seen buntu kër tey di seetaan yeewu leen ndax ndax jaaxle ndax li taxoon ñu wooteel candidat mm. gisuñu ko mm-hmm. Mm-hmm. kon tey ñoom autorité yi nañu fexe ba voilà ba jàppale xale yi ba mm. pare ñuy bañ a lëkkaloo mm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom doole yi ci àdduna bi ñu leen di jox xaalis ñuy téye bañ a jàppale ndaw ñi seen dëkk mm-hmm. ndax ñoom ñi am doole dam ci biti dañuy wax naan téye leen seen ndaw bu leen fi ñëw ba noppi jox leen xaalis donc loolu loo xamante ne normalul kon ñun dañu bëgg daal en tout cas seen réseau bi am na solo. combat bi tam c'est tellement c'est tellement important. bari fan yi rek ñu ngi dégg ay nit yu dee ay xale ay jigéen man jigéen ñi surtout moom a gën a naqari. kii c'est triste. moi je pense que au-delà de de y voir euh, exactement on parle de tristesse c'est normal mais je pense que c'est un thème qui est très, tellement complexe, complexe, et qui touche oui. tellement de niveaux parce qu'il y a les niveaux personnels, mm -hmm. donc le choix de la personne, mm -hmm. et ça c'est sacré, on peut rien. Après, ça touche les niveaux social parce qu'on sait très bien que parfois derrière le choix d'une personne, il y a la pression parfois. pression sociale bi pression mhm. sociale. de la famille. et euh, ça touche aussi euh, des niveaux économiques politiques et parce que faut il faut am na lii def na lii. ñëpp a koy def. c'est dans toutes les familles sama famille yeeg famille ñëpp. regarde diw il y en a pas mal il y en a pas mal et donc euh, après ça touche les parce que il faut qu'il y ait des conditions pour pays parce que ce n'est pas seulement une question

extraordinaire. Ouais. Donc lui, il travaille avec des jeunes. Mm -hmm. Ce sont des jeunes qui viennent de situations difficiles. Mm -hmm. Donc on peut dire des gens, des jeunes qui peuvent être tentés par l'immigration irrégulière. Mm -hmm. Et ce qu'il fait, c'est de leur offrir des formations gratuites mhm. de qualité mhm. qui puissent leur apprendre un travail euh, qu'ils peuvent aimer, par exemple dans l'audiovisuel. C'est des métiers que les jeunes aiment. Voilà. Mhm. Après, euh, ils essaient voilà, de, de, de l'aider pour trouver un travail, mais surtout, euh, ils travaillent avec, euh, avec ces jeunes-là sur la mentalité de ces jeunes. Donc, mm -hmm. pour essayer de leur faire comprendre que c'est très important avoir des règles dans le travail. C'est très important de faire un travail de qualité, parce que si on fait un travail de qualité, les gens, n'importe où, où ils sont dans le monde, ils vont venir vers toi et te dire, Exaides, mm -hmm. c'est toi que je veux, ouais. c'est ton travail que je veux, mm -hmm. et comme ça, tu pourras partir. Et maintenant, Matador a fait partir tellement de jeunes mmh. dans le de formation à l'étranger. Il y a des gens qui ont voyagé beaucoup plus que moi, beaucoup plus de nous tous qu'on est assis là-bas. Et c'est des jeunes que, sur lesquels peut-être même leur famille n'aurait pas mis 100 francs. Mmh. Donc je me dis qu'il faut essayer de comprendre, de travailler dans ce sens-là. Mmh. Travailler dans la mentalité des, des gens, faire comprendre qu'ici, au Sénégal, il y a des potentialités. Mhm. Il faut croire en soi. Mhm. nous potentialités mhm. et essayer de travailler dans un, dans un cadre de telle sorte que ces gens-là puissent voyager dans un cadre légal de formation, mmh. de travail. C'est très important. C'est difficile, mais les bases sont là pour changer. Mhm. Mhm. Moi, je me dis souvent qu'il y a deux mots que j'aime employer pour les continents africains. C'est euh, innovation et ambition. Mmh. Donc, je dis aux jeunes Sénégalais d'être innovateurs et ambitieux. c'est comme ça que on pourra changer les regards même sur la migration. tout en sachant que tukki itam dafa bokk ci droit de l'homme mhm. ku ne am nga droit di tukki itam. di dem di xool tukki dafa baax. waaw ñi nga xamante fa la jëm. yàgg na depuis ba ñuy ba Afrique mën nañ ko jàpp di choisir ku nekk naan fii laay choisir fii laay choisir mhm. ñun sax dañ ngay tooñee naan ñi am sa passeport yu baax bi dëgg la da ngay jaar fu la boo demee bu ngeen boo demee ci aéroport yi sax dañ di ber borom passeport CEDEAO yi. léegi ñoom inculqué nañu loolu wala ñu juug ñu. ñëw nañu ni enclos. léegi ñoom inculqué nañu loolu wala ñëw nañu ñëw jël suñuy ressources ba nga xamante ni léegi mujj gi dañuy dafa nekk sens inverse dafa nekk sens dañuy dem di dellu ni ñuy dee donte du leen neex. Hmm. donc loolu tamit xam beneen moom li ñuy wax bu immigration question bu complexe la. boo koy xoolee ci chaîne bi fi mu jógee ba ci kaw parce que hmm. ñun sax bu ñuy wax wala bu fekkee ñun nga xam ñoo nekk ci domaine ci kaw ci dañuy wax parce que affaire bi hmm. mal est beaucoup plus profond bu fekkee dañuy wax leen li ñuy wax rek adage bi mooy il faut couper l'arbre par ses racines donc bu fekkee loolu dafay jóg il faut nga yëkkati ba ci kaw ndaxte ci dirigeant yi la commencé colonisation ba yegg si ci fii donc nag bu fekkee la ñuy gën a insulté xale yi mooy ñun dirigeant mooy suñu diri suñu dirigeant africain yi mooy autorité wax ko 54 mhm. pays africains yi ñi nga xamante ne ñoo bokk ci at tamit ñuy gën di alerter autorité yi ñuy jox xale yi liggéey loolu mooy affaire bi su ko mhm. defee bu fekkee liggéey bi du rek day commencé ci éducation bi xale yi il faut nga jàngal leen ñu am espoir ci seen yi bañ a féete boor ñu bañ ko yemale ci seen i parti ci seen i quartier ci seen i koñ ci seen i njaboot il faut autorité yi ko i bopp population sénégalaise qui sont qui sont qui sont là pour dafa des bu baax a baax a baax ah, ah, dafa des moo ko waral ah, dogguma la waxuma la emploi rek mais parfois jeunes yi dañuy jàng ba orientation doo ko am wala dañ lay orienté ci benn université privée boo yemee licence soo amul moyen fay pour dem master c'est fini il faut nga am chance dëgg pour dem sax am bourse jàngi bitim réew ba pare euh, am na si ñoo xam ne ay université virtuelle lañ leen euh, lañ leen yóbbu hmm. amoo ordi amoo connexion fooy jàngee am na étudiants yu donc il faut vraiment une politique pour la formation et pour l' des jeunes ndax léegi xale yi dañuy dem ba léegi jàng sax ça leur sert à quoi parce que da ngay jàng ba pare yow sa diplôme seen doo liggéey doo def dara soo jéemul lancer auto entrepreneuriat dem defaral sa bopp benn affaire tu vas pas travailler. mais heureusement hmm? qu'il y a des jeunes quand même yu jóg ngir euh, euh, bàyyi seen lépp dugal ko ci sensibiliser euh, seen ay morom yi ndaw comme kuréel gi nga xamante ni aw Mbaye bokk na ci sénégalais yu ci bokk seen daje bu mujj bi je pense qu'on peut regarder les images en même temps euh, ci ndimbalu tonton Mag euh, ma nga amee woon ci dëkk bu ñu naan Casablanca foofee euh, keroog yaa représenté woon Sénégal y avait d'autres journalistes d'ailleurs ñi jóge ci ay dëkk yu bëri seen siège nekk Casablanca mais de façon xaw ma nan la ko mën a waxee lan ngeen prévoir pour journaliste ku nekk dëkkam yow mi nekk fi par exemple le Sénégal est-ce que vous avez prévu de tabax ay centre mm-hmm. defar ay bërëb ni peut-être di sensibiliser euh, ci ay mbir yu palpable euh, yu palpable plutôt waaw Cheikh bu ñu amee opportunité yu mel nii. Mhm. bu ñu nit ñi di déglu partenaire technique yi ak financier yi tamit di ñu may nopp. Mhm. Euh, dinañ bëgg ñoom itam ñu jàppale ñu ci wàll wi ñu nekk ñu teg loo xamante ne euh, daal ndaw ñi ñëpp dañu ci jariñu. Mhm. ndax ku nekk boo sañoon nga jariñ sa réew. Euh, Pape Cheikh partenaire financier yi technique yi ñu ngi fi ay OIE organisation internationale pour la migration ñu ngi fi. ñu waroon nañu dimbale tamit xale yi di def loo xamante ne dina leen jëmale kanam. ay voilà donc tey moom daanaka. c'est ce que nous attendons ci yéen en Ndakaaru tey boo xoolee ñu bëri ñu ngi am ay activités man moom sama activité fii tey ci yeewu leen la def ma ne ma ñëw <laughs> fii sunu kër fii ci uh-huh. yeewu leen. Uh-huh. man tamit ma def sensibilisation comme euh, réseau panafricain dañ ku nekk boo ñibbee sa dëkk yow na utiliser sa média. Uh-huh. ma ne ñun GFM gannaaw am nañu télé. am rajo am journal naa ci profité. nañ ko utiliser waaw te ñooy numéro un ak sondage bi on en parle tout à l'heure dinañ ci dinañ ci commentaire bu ca kanam. di wax ñuy bu ñuy xeeb <laughs> bu ñu gis Pape Cheikh rek toog ci plateau yeewu leen Pape Cheikh dafa commencé la télé état nous nit ñi di ko gis di ko gis ba mu bokk ci dund sénégalais yi kon yow bu bul xëy suba rek ne par force ma tekki dara xëyul sotti barki dem gis naa benn portrait ñu ne xaw ma Mbaye Sarr ki moom Sénécartour mu ne mhm. benn taxi la commencé tey mu am parc automobile wallaahi am na ay sëriñ bu ñu bëri ñoo xamante ne tey ci benn lañu commencé Demba Ka oil voilà ci benn lañu commencé voilà ñu xeeb bu xale yi xeeb ndax euh, nee nañu voilà nee nañu ah. yàlla baax na ah. te bu yàggee mën nañ ci def tamit sutura kon bu ñu xeeb lu ñu gis nañu jàpp mhm. euh, te daal mbëkk mi daal nañu ko arrêté ndax ah. mbëkk mi ñu ngi jaaxal seen waajur yi ñu ngi mhm. jaaxal seen mbokk yi xaru la xaru la xaru la mais tamit ñoom lañ ko doon waxtaanee rédaction fi nit di tolluwaay la di tollu nga am soxla munoo ko faj say naw la nga leen di gis mu tolluwaay la voilà nga gis géej mu mettee nga ne tolluwaay la koy eh, jaar loolu tolluwaay bu garaaw la wallaahi boo gisee seen discours tolluwaay bu garaaw la jàkkaarloo kenn mu waxtaan hmm. koo xam ne ils ont même propre terme da nga naan man man man je tombais des nues bi ma dégloo thème de la semaine euh, dañu am sax ay terme bopp naan chef bi mu ñëwee comme sa à dire tu as l'impression que armée la ay militaire wala da foog ni mafia la voilà c'est mafia bi gel bi di wax comme film mafia la kay avec des termes yoo xamante ni man dégguma ko woon c'est grave ba aw ci yoon yooyu sa droit yëpp li ñuy jël lem ko toog ci en fait t'as pas droit da ngay am droit juste obéir c'est tout am na ñoo xamante ne limite dañuy dem ba naan la boo révolté woo mun nañ la sànni ci géej désert bi ba pare am na ñuy jaar Libye je pense ñooñu moom buñ la expliqué li ñuy def yëpp man le débat est tellement intéressant nous sommes tous sensibles ci phénomène euh, euh, migration bu baaxul bi moo tax euh, ñu koy débat nii nous ne sommes pas des donneurs de leçons waaye dañuy gis gis ay mbir yoo xamante ni daf ñu naqari suñu ay rakk suñu ay mag ñun ñi sax euh, il nous arrive mu naqari benn envie rek am génn Sénégal dem sa parce que ku ci nekk foog nga ni voilà j'ai vu <laughs> mais que, que, que l'immigration soit choisie c'est ça. c'est ouais, ouais. Mais il faut d'abord investir sur soi-même. Mm-hmm. d'accord et se donner de il est dit il est dit les gens qui vont venir vers toi pour te dire mais je veux que tu viennes parce que ton travail c'est exceptionnel. c'est donner aussi de la dignité. pourquoi aller se faire traiter une personne. Mm-hmm. et puis il y a a tellement de choses qui se passent négatives. Parmi tous les migrants que j'ai rencontrés, il y a quelque chose qui m'a raconté euh, à un jeune qui avait tenté la traversée, euh, c'est un jeune Casamancé, et qui m'a raconté quand ils étaient dans le désert. Donc quand ils, ils traversaient le désert, euh, comment ils venaient traiter et tout. Et il disait qu'entre eux, quand ils font les voyages ensemble, ils se rencontrent, ils font amitié, parce que c'est mhm. normal, ils font mhm. les trajets ensemble. Il avait fait amitié avec un jeune Gambien. Et il a dit que c'est tellement dur, c'est tellement fatigant, tu ne bois pas, tu ne manges pas, euh, tu passes des journées clair. comme ça. Et la personne qui conduit, à un certain moment, quand il voit que les gens s'évanouissent ou bien ils sont fatigués, mais ils disent aux gens qui sont avec eux, maintenant, tu... c'est comme les jeunes Casamancés, c'est ce qu'il a vécu. Il a dit, j'avais fait amitié avec ces jeunes Gambiens. À un certain moment, il s'est évanoui. On l'a réveillé tout de suite parce qu'on avait peur que... On le on... Et la personne, euh, il, arrête, euh, il arrête le bus, il dit, maintenant, vous le descendez Aïe. en plein dessert. Et il a dit, C'est quelque chose que je me porte dans ma tête. Et j'ai essayé de me mettre à sa ça place. Mal, on, a, on, a, mis les pistolets sur eux pour leur dire ou vous le descendez ou on vous descend. Oh. Et ils étaient obligés de l'abandonner dans voilà. Ah, le désert. Donc c'est ça. Pour dire, c'est fort. Ouais, ouais. En tout cas, nous, on va continuer de sensibiliser quand même euh, mm. sur ce genre de thème très intéressant puisque utile la ak agréable yeewu leen bi euh, loolu ñu ngi la ci gërëm bu baax Awa Mbaye Seck il euh, y a beaucoup de journalistes femmes Euh, que ay jigéenu journaliste ñoo dajaloo euh, ku nekk am foo dëkk ci dëkku Afrique euh, ba ngeen nas seen kuréel gile naka la ñu mën a def ba bokk ci ci réseau bi. voilà réseau bi dañ ne fii ci Sénégal balaa ñoo delluwaat ci beneen rencontre bi war a am mois de mars. Mhm. ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal. Mhm. dañuy créer une antenne. Euh, journalistes yu jigéen ñi. ñu mhm. dajaloo am une antenne. bu ñuy mhm. dem ne Sénégal kat réseau bi am na fa doole yokku na. Mhm. Euh, ci loolu nag ñu ngi ci liggéey boobu nag ñu bëgg ko taxawal ñëpp invité nañ leen. parce que journaliste yëpp ah voilà parce que réseau bi ñun bi ñu demee Casa am na ñoo xamante ne ay blogueuses lañu ñii ay directrices télé. ñu ngi ci média voilà ñii di ay animatrices. donc ñëpp ñitu média la ñu wax. ñëpp ñëw bokk ci base bi. dëgër waaye Pape Cheikh bëggoon naa si yokku dara parce que bu daaw bi dañu waxoon ne nañu wax ci l'immigration interafricaine mhm. maanaam ñi nga xamante ne ñu ngi tukki des ci Afrique ñu ne dañ leen di fàtte boo jëlee cent personnes mhm. euh, quatre-vingts yi des nañu fii ci Afrique mhm. maanaam 80 pour cent ñu ngi ci Afrique te dañu yaakaar ne ndakate yi rek la tudd. Mhm. ñu ngi diggante Gambie Libéria. Afrique du Sud mhm. Mauritanie Mali. Mali Maroc Tunisie. te pourtant ay nit ñu bari lañu. ñu ne ñun tamit nekkul ne dañoo ñëw Afrique rek ne dañoo dem ci dëkku Afrique boo xamante ne dañu fa def immigration rek. ñu ngi suñu jàmm. Mhm. boo diggoonte xeet bi mi ngi fi. stigmatisation bi mi ngi fi. te loolu war la te ñun ñëpp ay. dëgg la et c'est vice versa ñun kaajoo ci xonk nopp la ak naar la ak ñatt la buñ ñu ko defee ñu nit buñ ci buñ ko buñ ko bañ waaw xonk nopp ñak voilà parce que nag ci loolu la ñuy wax ne loolu tamit nañu xeex tubaab sax c'est voilà loolu nañu xeex ba ñun Afrique ku ku ñëwati Mauritanie euh, Mauritanien bu ñëw Sénégal nañu ko mhm. accueillir mhm. Sénégalais bu dem Afrique du Sud dinañ ko accueillir parce que mhm. jamono yooyu gis nga li xewoon Afrique du Sud ñu ne ñoom bëggatuñu nit ñuul voilà bu ñëw dugg seen dëkk parce que dañoo doyal mais xoolal loolu te alors que africain mi ngi dem ci beneen dëkk ñu ñu accepté ko donc là ça ce sont des injustices yoo xamante ne il faut en parler la mm-hmm. sensibilisation continue mm-hmm. merci à toi Pape Cheikh ba jox ñu antenne bi tey ñu wax si sunu réseau les panafricains di wax uh-huh. euh, vous êtes présente ci réseaux sociaux c'est ça vous êtes sur Facebook Twitter comme peut y a pas de numéro de téléphone je sais pas euh, euh, bu nekkee ci réseaux sociaux yi c'est Ourey Thiam Perera qui que membre du comité permanent man membre du comité de suivi ñun mhm. comité de suivi ñun ñooy wax thème bi mhm. ba déwén mhm. comité euh, permanent bi ñoom ñooy lijjanti lépp lu jëm ci fonctionnement organisation bi donc ñun bi ñu demee euh, Sénégal man ak Ourey Thiam lañ ci tànnoon mais teewul ànd nañoo ak Ndeye Euh, Kébé ànd mhm. nañu Tata Sané bu la Soleil ànd mhm. nañu Fatou Blondin mhm. euh, ak tamit Adama Jitom Diada ak itam Awa Cissé bu RTS ñun ñëpp ci euh, réseau bi la c'est la délégation du Sénégal elle uh-huh. était très fournie merci aussi pour le Maroc uh-huh. donc di wax ne ñu ngi woon ñëpp nañu ñëw adhéré ci les panafricaines ngir ñu mën a am doole ndax jigéen ñi kat dañoo yaakaar ne ñoom bu ñu dajaloo seen biir dañuy toog rek di jàmbat aw ma lii aw ma lii ndax première édition ba lool la woon dañ ne ku nekk ñëw wax sa problème <laughs> jàmbat kii naan aw ma poste de responsabilité fu may liggéeyee kii naan dañ may xeex kii naan dañ ñu ne nag première édition bi yéen ñëpp wax ngeen seen jàmbat mm. jeex na beneen yoonee bu ñëwee ku nekk dañuy wax ci poñ bu intéressé Afrique on a parlé de l'immigration l'année prochaine peut-être on va parler des infrastructures de la santé wala mais ñu ngi leen di gërëm yéen waa yeewu leen di leen féliciter ci ci place bi TFM première RFM première ñoo parce que li ngay def itam dafa am solo Awa Mbaye euh, dara gënul neex nga yeewu déglu baatam euh, mm-hmm. ci euh, page santé ni muy nuyoo ak ni muy tàggoo rek faj na juróom-ñaari dof waxatuma la ak sujet muy développé yu am solo yi donc loolu mooy média di nga di nga di nga di nga divertir mais en même temps di nga joxe lu am solo te defe naa ñun ñëpp ah yéen ñi féete RFM ñun ñi féete ci télé bi tous les jours loolu mooy suñu combat moo tax lenn rek lañuy ñaan suñuy njiit nañ ñu respecté rek soxla wuñu xaalis mm-hmm. soxlawuñu kuñu yokkal salaire soxlawuñu dara on demande que respect ni ngeen nekkee ay kilifa seeni biir kër ñun tamit noonu la ñu nekkee ay kilifa suñu ay biir kër mhm. ni ngeen di bàyyee jeeg noonu la ñuy bàyyee ay jeeg ni ngeen di fayee ay scolarité doom ñun tamit noonu la ñuy fayee scolarité doom donc on ne demande que respect euh, bu ko defee ñu ndoo mhm. euh, euh, footandoo sumbandoo weerandoo groupe future Média wéy di nekk number one. Mhm. Euh, fii ci euh, Sénégal. Euh, donc Awa Mbaye félicitations. et on très content tey ci li nga bàyyee yëpp ñëw ngir sensibilisation bi nga xam ne ni moom lañ doon def jagleel ko xale yi surtout nga xamante ni ñoom ñëpp dañuy bëgg bis bu jot di sànni di dem ba kaaw mën nañ cee teg sax ak ab woy boo xamee ni dafa méngoo ak temu tay bi ak bis bi Kumba Gawlo woyoon na ko à l'époque mais daaw bi mu bëggee gën a sensibiliser ndaw ñi. da woyaat ba clip ko c'est un très beau boo xamante ni euh, euh, boo ko dégloo di nga xam ni dara jarul ci àddina ngay tayle sa bakkan sanangisa a b'a fɔ dɔ kɛra kalan na to a cogoya tɛ ko la a tɔgɔ ka magi a metri serewul may chôme tekci dëkk ci di toltolaat ci mbedd yi ماشي مسافر مهاجر بصيفه ماهي شرعيه عرب عنك الى ضحت ومضطر انا كنريح ضحيه يا جين طارق بون انا بقول جميلي في افانتير سفرها bala maa jooya gën a jàpp ma bëgg a régler samay soxla amuma lu ma ko defee sambin be sanji tan saba sotola delon din foloti ngon fennoon na molie be trawni le suuf ebeba na iwezo mwafrika bila itundu kuzamela sa baax xoola message boobu ni mu dawee yaram sama waay bul xaddi dina mësa baax euh, jàng baax na waaye li naqadi mooy euh, xale bu xëy ci kër euh, gis ndeyam gis baayam li jaasa yi mu waroon am yëpp am ko e malheureusement mënta faj soxla loolu dafa metti mais yàlla suñu borom suturaal xale yëpp ndaw yëpp yéen ñi xëy mu metti lool yàlla na leen yàlla jàppale dolli leen sutura Euh, te kenn bañ a xàddi ku ci ne rek war ngaa mën a xëy euh, góorgóorlu quand même euh, jàpp ci dara heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes qui yuy entreprendre te ñooñu fierté lañu ñi nga xamante ni itam metti na xam leen ni xëcc bu daggul dikk te xam naa ni xëcc Euh, euh, teraanga ak tekki du mës a teng euh, loolu c'était un message boo xamante ni bëggoon nañ ko jàllale avec cette belle chanson interprétée par Kumba Gawlo d'autres artistes ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu émigration donc encore ñu ngi gërëm Awa Mbaye Seck jóge RFM ñëwoon tey ci télévision Futur Média pour nous parler de réseau bi nga xamante ni fa la bokk ak thème tay bi nga xamante ni moom la ñu jagleel tuddee ko journée internationale des migrants on va recevoir quelques invités dans quelques minutes au salon avant euh, nit dof di ñu rejoindre à table euh, pour ñu ndekkee ak moom xam ngeen ni chaque suba euh, dina am star buy ñëw ñu ndekkeendoo ak moom démb waali fii la ndekkee bërki démb baxaw fii la ndekkee suba itam dinañu ndekki ak benn ndaanaan surprise lay doon ci plateau yeewu leen bi donc balay yooyu yëpp ñu bàyyi leen ngeen continuer di woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ñoo affiché wu ci suufu écran bi ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 828 04 05 ñu lambaat yeneen i téléspectateurs ku dugg boo tànnee région la nga fekk ci biir euh, yow yaa ko moom et puis seen i numéro téléphone day bokk euh, ci tirage yu mag yi nga xamante ni chaque dimanche après-midi euh, dama koy amal en direct ci télévision Futur Média alors ñu may leen ngeen composer rapidement benn ci numéro téléphone yi avant de retrouver Exidex au salon mu ngi toog ak Adjuma Ndiaye vice-président modèle bu mbaaw ay ndaw yoo xamee ni ñoom itam ñu ngi góorgóorlu ngir jàppalante ñu ngi waaj organiser benn gala ak Leuz Diwane ji le 28 décembre la ñu koy amal Euh, dinañu euh, recevoir itam euh, beneen invité bu ñu nar a ñëw waxtaan ci ay programme am allo. allo allo allo oui. sëñ bi na nga def waay. ñu ngi sant bu baax Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. naka suba si. waaw ça va loo ndekkee tey. Ah, waaw ah? loo ndekkee nga mburu mburu mburu comme ñëpp mburoog beurre mburoog thon mburoog chocolat mburoog mayonnaise mburoog ndambe mburoog lan. <laughs> mburoog chocolat. <laughs> mburoog chocolat man de mburoog beurre lay ah. lay ndekkee ak café bu tàng noo tudd. ah bon <laughs> noo tudd. man Ismaïla laa tudd. Ismaïla alors Ismaïla yaag sama benn papa yéen a bokk tur Ismaïla sama rakk papa la mu ngi oh. euh, mu ngi Saint-Louis mais c'est mon papa préféré Ismaïla fan nga ah, dëkk. man yaa ngi dëkk jëppal d' accord alors Ismaïla lan nga bëgg a gagné parmi loo yu ñu teg yëpp oto bi téléphone bi salon bi wala yeneen yi. waaw man yàlla na ko gagné waaye Ismaïla. amiin amiin yàlla na ko gagné comme ça boo ko gañee ñu def ko xaalis nga jox ma sama lekk. waaw <laughs> wala boog alors Ismaël dama lay bàyyi nga tànn euh, benn région sachant que Dakar ah, ah. tànn nañ ko Saint-Louis tamit tànn nañu ko alors ban région ngay tànn te loo fa fekk yow yaa ko moom Ismaël. d'accord bon damay jël Diourbel. Diourbel lan moo tax nga tànn Diourbel Ismaël Diourbel a ngi nii. waaw bon rien de spécial ah. dëkk bu la neex la quoi. bu ma neex la waaw. jaajëfatee. alors Ismaël ibil naa la région de Diourbel. fekk naa fi enveloppe boo xamante ni boobu toll ci cent mille chez Obala moo ci nekk Ismaël. ah alhamdulilah. am nga ay doom. am na ay doom waaw. voilà léegi nag kon cadeau cadeau Noël wàcc na la parce que lii mu ngi toll ci cent mille boo yóbboo xale yi chez ah. Obala lu ñu tànn ñoo ko moom ci cadeau wala jouet. waaw félicitations la. waaw jaajëf yaa ko moom merci Ismaël kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu baax merci d'avoir rappelé ne quitte pas comme ça ñu jël la ci ginnaaw mademoiselle cadeau ba t'expliquer naka ngay def euh, ba jot ci sa cadeau euh, allez continuer d'appeler am na fu am mille am na fu am 100000 am na fu am bon chez Obala à l'antenne même buñ dee wax ma fàttaliwaat leen ni mën ngeen ñoo dagg ngeen woote ñu jël leen bu ko defee ñu jox leen euh, seeni teranga avant de retrouver Sophie qui est en train de dresser la table pour le petit déjeuner avec notre ami Nit Doff sama waa ji nag li Sénégal yëpp di laajte mooy nit la war dof la yenn saa yi mu am fu mu génn ñëpp ne dof la yenn saa yi nit dof am fu mu génn ñëpp ne nit la mais c'est l'un des meilleurs rappeurs euh, ci Afrique laay wax waxuma rek Sénégal et il fait euh, la fierté euh, de toute une jeunesse de toute génération il sera avec nous tey nit dof fii lay ndekkee en attendant Exidex ñu bàyyi la nga recevoir un jeune qui représente qui représente d'autres jeunes de Mbao voilà un pur un pur produit de Mbao modèle de Mbao euh, Adjuma njaay nag euh, tey defe naa ne exemple boobu noonu xëj na euh, buñ ci xuuseeg moom rek dinañ ko laaj ba xam lu waral loolu le donc ajuma ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Exciders donc di nuyu Pape Cheikh di nuyu ñoom Mouham Mamadou Mouhamed. waaw yëkkatil micro bi nekk Mbao moom aussi. donc ñu ngi koy nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp. Mhm. di leen gërëm bu baax si accueil bi nga xam ni tey accueillir nañu ko fii si monument de la renaissance. Mamadou Ndiaye tamit ci ginnaaw moom it xam naa benn modèle la rek danañ ci ñëw bu ci kanam. maa koy wax sànq donc il est de modèle de lool. fekk ko fii si plateau bi. absolument alors euh, modèle de Mbao euh, très rapidement est-ce que mënuñu xam lan moo tax ngeen euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen créé loolu. wala merci beaucoup Exaïd donc modèle de Mbao donc biñ koy créé xëy na am naa ne sax c'est avant l'indépendance. avant l'indépendance depuis 1960 lañu. de Mbao. mu nekk club phare nekk club foño donc mm-hmm. bu mbaaw mm-hmm. donc nekk si banlieue pikin mm-hmm. donc mu nekk club boo xam ni xëy na sport surtout football particulièrement lañ ko xamee donc ñu yéeg deux fois en première division donc actuellement nag ñu nekk si national bi bëgg nag vraiment monté yéeg si kaw. moo waral xëy na tey jii suñu jotaay tey fii donc ngeen gis ñu fii tey si plateau bi. alors euh, modèle de mbaaw euh, ku ko dégg rek xam ne euh, exactement ñaaxaale si ay xale la pour ñu doon ay modèle ëllëg alors ngeen am nag aussi ay am événement boo xamante ni ñu koy préparé est-ce que mën nañ ci ñëw. waaw mën nañ si ñëw boo déggee tour bi effectivement dalay dalay ñaax. Hmm. mooy comme modèle. effectivement ñun ñu nekk équipe bu bees ñu fal ñu yaa un donc ak. moom xëy na ba moo waral mooy toog club élite nekk club élite donc au niveau du du Sénégal surtout si football bi. Mhm. Mhm. donc ñoo mën ay projet nag ay projet yu rëy. Mhm. mooy def ba tey ji modèle de mbaaw fi dégg AS Pikine. waaw di fa dégg équipe yu mag yëpp ñu fay dégg modèle de mbaaw. voilà si loolu ñu amoon ay projet projet yi c'était quoi. li ñu indi fii tey mooy ñu def benn dina de gala. waaw dîner de gala bu rëy ànd si ak Leuz diwaan ji. Leuz moom waa lu c'est un fils de mbaaw moom waaw c'est un fils de mbaaw pourquoi ñu jël Leuz mënoon nañ jël ku nekk dëkk bi la dëkk. nekk xale boo xam ne tey jii adduna yëpp ñu ngi koy tiitaroo. Mm-hmm. moo tax ñu choisir le diwaan ji. Mm-hmm. yóbbu ko si cadre bu idéal fan la mm-hmm. mooy restaurant Pia restaurant bu mag. nekk biir Mbaaw. ñun aussi ñu fier si organiser dans notre localité ak suñu ay artistes locaux. benn Leuz Diwane bi wax nañ ko sànq. ak Mor Ndiaye artiste bi nga xam ne tey ji ku lekk ba suur fecc ba kii dina la réeroo ba nga. voilà ba nga fàtte stress. <laughs> donc si loolu aussi ñu ngi siy woo ñëpp. donc di si woo autorités yi. d'accord donc en commençant par euh, peut-être euh, suñu autorité bu mag a mag bi mooy Mamadou Seck. Mhm. le président de l'Assemblée nationale di fierté Mbao. Mhm. donc le maire de Mbao bi nga xam ne aussi mu ngi à côté donc de la population. Mhm. di si woo surtout le ministre Abdou Karim bi nga xam ne c'est un pour Mbao. parce que nga am un ministre de l'environnement bi nga xam ne mu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib actuellement. ñooñu aussi ñu ngi leen di woo si si bi di si woo nga xam ne ñoom docteur Ndiaye parrain yi ñëpp ñoom marraine yeeg ñëpp di leen si woo. nga xam ni tey jii soirée bi day nekk soirée bu mucc ayib. incha allah ñu ngi koy amalee le samedi 28 décembre. au restaurant Pia donc hmm. wax nañ ko sànq. Hmm. pour ne serait je pense que excité comme li ñu wax rek. tey jii hmm. sànq ñu ngi koy wax si euh, si invité bi. que dafa am phénomène bu am. mooy mbëkk mi immigration clandestine. ñu gis xale yu bëri di si dem. tey jii mbaaw nekk si coach bi. ci mm-hmm. code bi pense que bu ñuy wax phénomène immigration clandestine mbaaw da ciy bokk mm-hmm. tey ji su fekkee am nañ benn club élite bu dëgër bu taxaw mm-hmm. boo xam ne xëy na mën na téye xale yi ñu nekk ay professionnel suba je pense que phénomène boobu ñun aussi je pense que modèle bi nga doon wax ñun dinañ si xeex parce que tey jii ñu ngi nekk di liggéey liggéey bu extraordinaire ak xëy na technicien yi ñu am foofu en l'occurrence Diogo ak seen ak ses adjoints ñuy jàngal xale yi football pour que demee mbaaw mën a am ni dinañ ci mën a a jàpp alors euh, defe naa ni euh, wax nañu euh, guddi googu li muy préparé ban lan mooy sa kàddu yu mujj yoo xamante ne yaa ngi koy lancé muy message boo xamante ne tey ku nekk mbaaw danañ ci mën a sukkandiku ba ñëw ci soirée wala message bi dañuy wax ni waa mbaaw dañ leen di dañ leen di invité yéen ñëpp ngeen ñëw si soirée par soirée bi liñ si jublu mooy fundraising la maanaam ut ay koppar xam nañ ne football actuellement ay koppar ñoo ko yor. Mhm. te vraiment modèle en souffre. léegi mhm. nag ñu ngi si woo population mbaaw yëpp wax naa ko sànq si wàllu autorité yi. Mhm. di si woo ñëpp ñoom docteur Ndiaye ñoom docteur en tout cas population yi. parce que tey yàlla dafa def ñoo am benn section féminine bu dëgër. jiite ko par maada xale yi ak ñoom Ami Collé ñoom Ramatoulaye Diop. donc ñooñu noonu tey jii ils sont en train de sillonner Mbao. Hmm. pour jaay carte yi. carte yi seeru est-ce que am na numéro téléphone boo xam ne voilà téléphone yi jox Ndiaye Ndiaye xam naa ne moom it. maa ngi maa ngi pare xam nga dîner de gala waa Mbao yi moom il faut ma pare ko bu baax a baax surtout. Ah. ak euh, modèle de Mbao nga xamante ni actuellement mooy suñu club de référence te lu am solo la. foofu ci Mbao man xam nga luy waa jeunesse su Mbao yëngatu man maa ngi ci àjjuma mi xamante nañ depuis yàgg na. foofu léegi donc en tout cas. mi ngi noonu mi ngi noonu. <laughs> donc extrait de si numéro téléphone yi. waaw très rapidement donc 01 42 di si woo club yi nekk si banlieue bi yëpp. incha allah lu si mel ne AS Pikine. donc waa Rufisque waa Thiaroye le mouvement nawetaan surtout. donc l'ODCAV de Pikine l'ONCAV tout le monde en tout cas tout le monde sportif ñu ngi leen di woo si bés boobu. te xam ne ku ko ñëw ku nekk doo ko rëccu. man na kenn rek laa ci invité ko kooku man moom laa fan biir Mbaawa donc c'est vrai yàlleuse mais dama am sama beneen booy bu ma fan bu tudd Bouba de Mbaaw. donc Bouba de Mbaaw Bouba de Mbaaw man. ñu man man fan <laughs> Daouda Mbaw man moomay gaañ man maay fansam bu doon jaay carte fans benn rek la maa koy jënd donc moom moom laa ci woo dëkk Bouba na Mbaw mobiliser l incha allah guddi googu la merci aussi ñu ngi la siy woo di si woo ñoom Pape Cheikh Diallo di si woo en tout cas TFM bi yëpp incha allah voilà Pape Cheikh Diallo euh, mu nekkoon Adjuma Ndiaye donc comme ni ñu ko waxee rek moom it bokk euh, modèle la euh, ci Mbaaw Mamadou Ndiaye mi tamit defe naa firndeel na ko donc soirée boobu ñu ngi ciy xaar képp koo xamante ne rek yaa ngi dekk Mbaaw aux alentours sénégalais yëpp pour ñu mën a taxawal taxawal association boobu la merci beaucoup. Merci voilà beaucoup. merci euh, Exidex e euh, je te laisse le soin euh, ngeen dem à table. Euh, pour ndekki li nga xamante ni moom la ñu nas tey ak euh, nit dof qui nu fait l'honneur de venir euh, ndekki ak ñun ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo àndandoo ak ñun depuis ce matin ci télévision Futur Média et puis merci à notre ami Adjuma qui était venu nous parler de ce programme foofee ca Mbaaw Mbaaw nag suñu dëkk la dëkku Serigne Mansour Sy la dëkku Pape Assane Seck la journaliste bu mag bi dëkku yaayam Adja Vassor maamu Vassor Binta mi ñu fayee bàjjanam Binta Diak alors Binta Diak tamit euh, ñu ngi koy nuyu bu baax euh, di ko ndokkeel Madiata Saw Ndiaye jigéen bu bëri valeur la Binta Diak euh, on t'embrasse très fort donc turandoowam di Binta Vassor mu ndaw doomi Pape Assane Seck ñoom itam waa mbaaw la ñu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax liñ ci toftal nag mooy wàllu bien-être ak Mado alors Mado vieillissement am na ñu bëri ñoo xam ni dañu ko ragal ba bu seen kanam commencé ras sax dañuy stressé mais heureusement ba am nga ay conseils yu am solo yoo xamante ni classe xamee ni léegi maire la mën na koo jëfandikoo ba màggetaayam du feeñ. effectivement Baye Cheikh mooy li nga wax rek. bisu lax la pucca donc benn soin <laughs> ay itam li ma xam dafa bëri kii moom ma dooyam. cest dire nee naa leen yéen di ngeen mës a jël suppu kañ nga diw ko ci seen kanam yi parce que tout le temps ay cocktail ay euh, diw bi ay njaxas mélange mbaxal sax di nga ko utiliser pour bien-être donc comme ni nga ko waxee rek Pape Cheikh loolu la donc bi paan nag moom du ma utiliser mbaxal waaye maanaam benn machine la boo xamante ne euh, dina permettre lépp lu ñu duppee ay rid wala anti vieillissement maanaam noonu lañ koy tënkee moom lay def ci nit ki li ñuy def rek dañuy dem xooli élément bi pour ngeen gën a mun a comprendre jamono sedd deru nit day faral di wow ba tax na di ci def li ñu duppee soin du visage dina ci def ay ngëneel soin du visage di dindi lépp lu ñu duppee impureté ci kanamu nit ki ginnaaw bu ñuy installé sunu cliente ba noppi dañu koy nettoyel kanamam njëkkee ci li ñu duppee gomage des lèvres buñ ci noppee ñu appliquer ab gomage ci kanamam bi pour dindi der yi nga xamante ne dafa jot ndax pollution bi muy jonkonteel ginnaaw loolu ñu jël na huile passé ko ci kanamam def massage buñ ci noppee ñu utiliser benn appareil bu ñu duppee vapozone vapozone mooy génnee ab vapeur boo xamante ne boo ko tegee ci kanamu nit ki dina ibbi lépp loo xamante ne moom moo di port bu defee bépp produit boo ci def dina mun a pénétrer ci nu mu waree ñu passé ci extraction des comédons maanaam lépp loo xamante ne moom moo di sébum impureté bouton wala point noir dañ koy génnee pour que la peau devienne plus saine pour jeexal suñu soin du visage dañuy appliquer ab sérum ci kanamu cliente bi njëriñam nag moom moo di combatre ay rides di joxe li nga xamante ne moom moo di éclat ci suñu teint ak hydrater suñu peau ndax jamono seddaay comme niñ leen ko waxee woon yaram dafay mar ba tax na di ci appliquer sérum dina ci baax loolu liñ koy tëjee nag mooy ab machine de dernière génération buy fixer bépp traitement bi ñuy def tey ci kanamu cliente bi ngir yokk taaram. I wanna feel you too I wanna see the sunrise in your scenes Just me, you, right here On the run Let's make love tonight faudra donc euh, euh, Mado euh, nga lu am solo loo xamante ni baax na pour bien-être quand même <laughs> waaw Pape Cheikh moom ni nga ko waxee rek donc benn soin du visage spécifique la woon boo xamante ne anti vieillissement la ak anti ride lan moo koy permettre nag mu def loolu mooy machine bi nga xamante ne moom la ñu gis en dernier moment ñu tuddee ko Cola 2. Cola 2 nag mu nekk benn appareil boo xamante ne dafay permettre lépp loo xamante ne moom moo di diminution li ñu duppee ay ridules maanaam li nga xamante ne moom moo di ay rides yi nit di faral. di am ba pare dafay dem ba ci visage bi ak li nga xamante moom moo di décolleté bi et dafay stimuler li ñu duppee collagène ndax wax naa leen tout temps collagène dafa bokk ci li nga xamante moom moo di suñu yaram donc bu ñu amee ay appareil yoo xamante da koy booster di ko produire wala di ko stimuler ce qui veut dire que euh, day lutter lépp ci loo xamante day jëm ci wàllu anti leneen li ci am ba tey mooy dafa nekk une daf lay boo xamante ne c'est une ba pare li ci a neex mooy dafay Euh, sunu peau leneen li ci xam nag mooy il faut savoir que traitement bi boo koy def bëgg mu am effet il faut le faire sur une durée de 3 mois maanaam pendant 12 semaines ngay def ay séances mais leneen li ci gën a am solo mooy bu fekkee da ngay def soin boobu il faut être à 50 centimètres de appareil bi ba pare impérativement mettre lunettes yi nga xamante ne moom nañu gis ci biir élément bi pour protéger li nga xamante ne moom moo di sunu bët yi mais tout le temps comme ni ñuy joxe ay conseils ces styles euh, ne ils sont pas adaptés à ça de ñuy fàttali nit ñi nga xamante ne dañu euh, nekk ay femmes enceintes ñi ngi euh, ñoom waruñu utiliser li nga xamante ne moom moo di appareil bi wala les personnes aussi qui ont de euh, maanaam ñu amee cancer ñoom itam waruñu ko def wala nit ki nga xamante ne dafa amee fièvre wala les personnes surtout qui sont épileptiques parce que parfois aussi di ngay defal nit soin bu fekkee produit yi ngay utiliser comme ay huiles essentielles bu fooree donc la personne peut euh, def li nga xamante ne moom moo di crise épilepsie donc na yi bàyyi xel buñ ci jógee rapidement rek li nga xamante ne bëbël bi nga xamante ne dafa xew mooy masque boo xamante ne c'est un masque bulle donc boo ko defee dafay nekk sous forme de pâte mais boo toogee en cinq minutes da ngay gis ce sont des bulles yoo xamante ne qui vont se former lan mooy njariñam toujours c'est lutter contre le vieillissement de la peau lutter li nga xamante ne moom moo di contre les ridules ba pare dafay donner maanaam dafay gën a oxygéné ak boosté li ma duppee doon li ma doon wax sànq mooy euh, euh, le collagène bi nekk ci sunu yaram nañu wax moom ngay def rek ah. boo ko pompé pat lay doon mais bu yàggee dafay def bulle mais ah. leneen li ma gën a bëgg sax nga testé Pape voilà mooy cet appareil là donc appareil bi ngay gis ni moom moo di appareil brosse donc yow boo ko jëlee uh-huh. donc allumé ko nga teg ko ci sa kaw pour xool gis nga nu muy def ah. donc il est très doux voilà et puis ça n'agresse pas le visage mais tiens-toi bien moom moo nekk appareil bi nga xamante ne moom moo gën a efficace profondeur et surtout du agresser li nga xamante moom moo di suñu kanam euh, c'est important ah. donc amaat na leneen loo xamante ne moo di appareil bii ngay gis ni parce que tout le temps comme ni ngeen di gis quand on fait le soin donc on a besoin de quelque chose mooy euh, boo tijjee boo defee vapozone bi ba ibbi poor yi produit bi ci dugg on a besoin de li nga xamante ne moo di euh, refermer ko mais balaa nga koy refermer da ngay utiliser appareil bi donc boo ko tegee ci sa loxo pas la sensation bi ngay sentir ah. dafa ba nga xamante ne dafa tàng day permettre mooy dina ibbi pori mu dindi lépp loo xamante ne moom moo di extraction des produits mais leneen li ci gën a am solo wax naa ko port saa yu ñu ko tijjee dafa am noo nooy defee pour mu tëju mhm. naka ngay def pour mu tëj toujours grâce à cet appareil là mhm. Pape boo ko defee nga utiliser bu baax ah. di nga gis que maintenant dafa sedd guy ah. sedd boobu nag moom mooy tëj li nga xamante ne moom moo di sa port donc c'est impératif nit yi di ko am na ko utiliser jigéen mun na ko utiliser surtout pour les mm. yi nga xamante ne duñu bëgg di dem

milliards mais Cheikh Kacha ci boppam euh, croissant yu tàng yu nooy nepp euh, man daal mosuma gis lii fa laa euh, mais jar na milliards je vous conseille pour cette période de fin d'année ndekki yu neex croissant yeeg weenaaserie weenaaserie la tudd ah, daal jar na milliards seen i mburu jar na 14 milliards seen i croissant jar na 14 milliards donc si vous avez envie vraiment de ndekki ay ndekki yu neex na ngeen dem Cheikh Kacha fii sur la route des Almadies et puis ce qui souhaite euh, ci kaw itam euh, am na restaurant bu nekk foofu noonu wax naa ci ba pare bi je garaaw garaaw nañu dem garaaw garaaw yëpp naa wax après naa ko wax après dañ dem toogi na le kenn du këf samay wax léegi waaw bàyyi leen dem sax man kese moo wéet euh, ngeen installé wu foofu te bu naan jus parce que maa ngi ñëw ndekkeendoo ak yéen bu leen fàtte ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 dugg euh, ñu euh, teral la jox la ci enveloppe yi nga xamante ne euh, dañu koy séddale tey ci yeewu leen bi Exidex yaa ngi ak nit dof voilà de qui donc l'homme des grands événements tey ki nga xamante ni c'est une fierté mal comme li may wax toujours rek nekk na tey benn icône boo xamante ne à chaque fois mois de décembre bu yegsee ñëpp dañuy xamante ne oui le rap aujourd'hui va fêter encore une fois son existence grâce à lui à chaque fois dañ koy remercier tax Sénégal yi d'ailleurs moom euh, di ko ko woon di ñëw massivement euh, gëm naa ne euh, nit dof li may wax toujours rek dem na moom événement bi moomatu ko Sénégal yi ñoo ko moom bëggu bëggatuloon dëgg sax Sénégal yoo koy jëli fu mu nekk andi ko parce que tout simplement on est fier et on était pressé d'avoir un homme comme sa bo xamante ne au-delà même de la musique tey il peut recruter andi ko ci stade au profit pas de lui-même mais booy xool de tout le hip-hop liñ koy wax chaque fois rek bu concert bi amee aussi dañuy bëgg am suñu wàll ci moom mooy mu teel a yéeg aussi bégal ah, je pense que message boobu noonu depuis qu'il a démarré c'était tout simplement montrer sa générosité envers le hip-hop et puis le partage moom mu nekk combat nañ ko bokk bëggante suñu biir yaatal euh, ñëpp xaj nañ ci moo tax aujourd'hui euh, ce succès la macha allah euh, sénégalais yi mu nekk une reconnaissance alors nit toujours on plaisir hein, d'être à tes côtés surtout dalal la ci émission Yeewu Leen dëkk nag. waa acca acca kon kon kon kon acca nit. na ñëw si si doyul waaye ngeen bu ñu buruxloo rek. comme temps yi fii mooy saal bi. Mamadou Ndiaye yow journaliste nga doo bàyyi animateur yi ñu ñu wax ci variété bi ah. quand même ah journaliste war na toog ak animateur quand même. ma doon est-ce que xam nga ci ah, ah journaliste yi kat dañ koy def yenn saa yi dañuy jóg def ne du ñu def yenn. Mamadou jógal journaliste nga fii ay animateur fi toog nit la wala dof la ah donc nit dof avec nous voilà on s'installe ñu installé wu toog ayca mën a tàmbali waxtaan bi foo tolloon yaa ngi ko doon wax nit nit nit dof nuyool voilà mu nuyool baax na waaw maa nuyu bu baax a baax di nuyu waa plateau bi yëpp encore euh, une fois mu nekkaat plaisir bu mag a mag ma ñëwaat fii mon frère Pape Cheikh maa lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay di nuyu Sénégal yi ñuy seetaan di euh, lu invitation bi. bi mooy sama énième fois ma ñëw si émission bi. ah je suis toujours très très bien accueilli ici. c'est toujours un plaisir. alors euh, nit ñu gis ne euh, actuellement événement mois de décembre ce mois la mu nekk feetu hip hop. parce que comme lu ñuy wax actuellement am nga yeneen objectif ak mois de décembre bu jotee képp kuy rappeur da sawar da ngay kontaan parce que danañu am benn fête boo xamante ne euh, à travers yow ñu ngi koy am stade actuellement fan nga ci toll euh, comment ça se passe au niveau de l'organisation pour que euh, fan si at ñi nga xamante ne ñu ngi préparé guddi googu mën a ñëw. waaw comme ni nga ko waxee ah, mois de décembre moom. d'habitude sax léegi dafa commencé nekk mois wu rappeurs yi. waaw mois rappeurs yi parce que les les rappeurs ils organisent mois de décembre bi. Mm-hmm. et euh, a aussi Elzo Jamdong. bu war a def le 28 bi euh, Topla Show. waaw et aussi léegi ci mois de décembre bi la nekk. et que la bu ñëpp di xaar comme ni ko waxee c' est euh, rassemblement de de tout le mouvement. Mm-hmm. ñëpp ay ñëw. ñëpp a koy préparé fépp ñuy jógee ci Sénégal am ñoo xam ne de l' extérieur la ñuy jógee. Mm-hmm. donc ñu ngi kontaan ñun encore une fois tegaat ko. mu mu nekkaat un pas de plus. plus mu nekk un rassemblement euh, de tous les hip-hopeurs encore une fois de plus et que le mois de décembre commence vraiment à devenir le mois carrément bu nga xam ne daax nañ gaayam léegi rappeurs ñoo ko accaparé quoi <laughs> alors Pape xam nga ñun à chaque fois buy def euh, concert donc euh, show up de yooyu bi mooy mujjee yéeg ah donc parfois ay deux heures trois heures du matin lay yéeg quoi mais nit fi mu toll nii gars yi dañoo kaas a kaas a kaas ne ñun léegi nit bëgg nañ au moins léegi gis la teel a ñëw est-ce ci compte est-ce que bii dana am changement ci côté boobu. bien sûr xam nga affaire yi moom du ñàkk parfois moom ay aléa. quand tu organises des concerts comme ça yoo xamante si ni rassemblement de tous les hip la. du ñàkk aussi que ni avec les invités avec les aléas et tout du ñàkk parfois moom retard. parce que da bëgg ñëpp jouer. <laughs> waaw du si ñàkk xam nga ñun comment on a toujours voulu que affaire bi mu dem mu nekk un de tout le monde. Hmm. on a jamais de yaatal ko nu mu gën a guddee ba tax na ren on a pris les devants incha allah rabi on demande au public d' complice de ça ni ñuy nekkee complice mooy ñu teel a ñëw quoi. le monde aura son temps de scène dinañ teel a jouer ce sera le vendredi euh, donc euh, dina am ñoo xam sax dañuy xëy liggéey samedi. donc euh, nit ñi ni ñu teel a ñëw ñu teel a comme ça tout le monde sera content. mais da ngeen nombre de personnes yi doon jouer wala même personne yi ngeen garder le truc a quand comme on a benn yaatal ko l'année prochaine on va faire peut-être 48 euh, heures voire 72 heures. il le a vraiment diminué la liste mais on vraiment évité que la qualité que la qualité. kan lañ fa mën gis. la crème. la crème. c'est pour ne pas citer di Dioum mais vraiment toute la crème ak jeunes yi nga xam si ne ils viennent fraîchement de sortir leurs albums ouais. on leur donnera l'occasion de venir se produire là-bas il y aura H de Bess il y aura Kouldis tous ces jeunes là yi nga xamante si ni c'est leur premier projet ñoom ils seront là-bas et toute la génération de One Lyrical Omzo Dollar Paco Pris tout ça ils seront là-bas et il y aura aussi les anciens les anciens ils seront toujours là donc euh, euh rassemblement et complet des générations lay doon ce sont toutes les générations qui vont se croiser si benn soirée mm-hmm. donc voilà mais mais mais venu l'idée déjà euh, stade parce que on ah, fait c'est quoi le secret du show of the year parce que dafa dem ba dafa bokk ci euh, euh, dundu ni sénégalais yi dafa dem ba bokk ci agenda culturel bu Sénégal quoi déclic bi secret bi man man man loolu mënu ma ko comprendre da ngay gis que euh, engouement bi dafay gën a yokk souvent da ngay gis benn événement boo xam ne avec le temps day décliner di wàññeeku ah. mais show of the year on fait ça chaque année ah. et chaque fois hmm. day dem crescendo et c'est même devenu un festival de hip hop voilà mooy suñu festival de hip hop festival <laughs> secret bi je pense rek mooy mooy sincérité bi ñu demee ak motivation bi ñu demee ak détermination bi ñu demee quoi. parce que c'était pas facile au début mais dañu gëm suñu bopp liggéey y a pas eu trop de soutien y a pas eu trop de sponsors mais on s'est dit que ni avec la volonté même si yooyu ñëwul on peut faire les choses quoi. donc sénégalais yi aussi jàppale ñu si. ñu mën la yéen aussi jàppale ñu si parce que à chaque fois ñu ñëw fii. dañuy dañuy gis ne nit ñi ñu ngi push quoi. ñu ngi push au maximum pour que affaire yi dem. Mhm. donc euh, c' est la complicité de tout le monde. ñëpp mhm. ñoo ko def seen affaire bopp. Mhm. et euh, moo tax tey résultat bi ñuy am ñu ko si am quoi. voilà alors euh, toujours ci organisation bi mobiliser déjà stade c'est moom la ñuy wax c'est c'est xaalis bu bari la. Ah, sponsor yi dëgg au début ils ont pas suivi mais terewul la bañ a dem. bu doon ñu bëri la d'ailleurs sax ñu bëri loolu tax ñu def demi tour wala ñu déposer la clé sous le paillasson mais mm. yow da nga da toujours nga leen avec ou sans man damay def sama concert. waaw ah, loolu dafay revenir rek ci discours bi ñuy tenir ak philosophie bi ñuy demee xam nga chaque fois ci suñu musique dañuy Afrique gëm seen bopp. bu leen yaakaar ni bu leen euh, Occident jàppale wala du ngeen dem wala foog ñu dimbali leen. Mm-hmm. à chaque fois day feeñ ci suñu musique. Mm-hmm. donc bu ñëwee suñu liggéey te wane wuñ ko. Mm-hmm. day mel ne dañuy contredire suñu bopp. cest di gën a dem affaire di continuer malgré que on trouve dommage que nga am say jeune réew ñuy exceller ci benn affaire di ci bouger mu gën muy générer de l'emploi du profit pour beaucoup de gens mhm. nos autorités waroon nañ a les gens qui s'occupent des sponsors ici au Sénégal on les voit accompagner d'autres artistes yu jóge faneen à coup de millions yu et que dañuy ignorer ñun les artistes qui sont là sur place on trouve ça très dommage mhm. mais c'est dégg yenn euh, ci ay mbir yu ci am ba certaines personnes peut-être ils ont peur il mm-hmm. euh, y a même des des des annonceurs yoo xamante ni ils peuvent se dire euh, bëgguñu coller seen image ak telle ou telle chose mais c'est le monde hip-hop qui est comme ça mm. monde hip-hop dafa ànd ak dafa ànd ak dafa ànd ak loolu la coow dafa ànd ak musique de jeune la am na si yu bëri yoo xam ne ah, ñu dañ koy yóbbu fu mu àggul c'est juste ay ex ay ay confrontation yoo xam ne c'est entre MC c'est des choses que nous nous on comprend c'est pas si méchant que ça. et loolu dañ koy balayer quoi parce que Pape Cheikh. Euh, annonceurs yooyu. ñi ñuy sponsorisé ñun xam nañ leen. xam nañ seen musique xam nañ seen discours. donc loolu mënatul nekk lay quoi si ñoom. ils sont en train de sponsoriser des gens yoo xamante ne nii xool ay affaires yu doy waar seen musique ak seen ay vidéo clip. waaw donc mënatuñ coller étiquette boobu rap Galsen. absolument donc c'est pas ça. la jeunesse sénégalaise c'est une jeunesse assez consciente. assez positive. et que et puis yéen vous êtes des responsables. absolument parce que benn parce que boo koy xool tey euh, ku ci nekk bu la sponsorisé xëj na 1000 personnes la la sponsorisé 1500. grand théâtre la mais un stade Afrique wëral événement yuy am yuy am ci stade. dañu koy compter normalement xëccoo la waroon nekk xëccoo la waroon doon ak sponsor yi c'est clair mais est-ce que dem nga envers ñoom parce que tamit parfois on se dit que yow comme da nga ne dem naa benn yoon ils m'ont pas suivi j'ai pas les suivi damay xaar ñoom ñu ñëw si non non def nañ def nañ ñu waroon def yëpp moi je suis quelqu'un boo xamante ne je suis pas rancunier je reste toujours aussi euh, les portes ouvertes te saa man sama mot d'ordre mooy du ma leen xaar ci dara on fait les choses tout seul et ñu ngi leen ci normes yi ñu leen war a oowee jaar nañ fi ñu war a jaar yëpp quoi donc a un problème ailleurs qui bloque nous on peut même pas l'expliquer parce que à chaque fois on se dit que non ñi mënuñu ñu ignorer quoi mhm. avec projet bu toll détermination ak une jeunesse assez mhm. et il y a jamais eu d'histoire il jamais eu d'embrouille dañu ñëw def ko dans la festivité dans la mhm. potentiel client de demain. dëgg la et que c'est la euh, preuve même pas le fait que ñoom gisuñu la. la preuve dafa am benn moment boo xamante ne moment wu euh, public bi la mooy moment bi muy yéeg mu am blackout. Ah gars yi taal seen téléphone. c'est spectaculaire. tu as presque plus de ça ah moment boobu noonu tu rentres en transe moom ci boppam day lu ñu xam daal parce que day taxaw xool stade bi weex tal ak téléphone. téléphone yooyu noonu ça appartient quand même à des firmes yoo xamante ne euh, ñoo ko moom di liggéey téléphone yi. loolu rek communication la tey moom la ñu bëgg wax ne euh, événement boobu noonu toll na foo xamante ne léegi mooy demal boppam parce que sénégalais yi ñooy ñëw jënd ticket yi mais année bi nag xaw ma ndax Louga ñooy njëkk ñëw wala waa Dakar mais waa Dakar booy gars yi sont déterminés de année bi xam nga daaw waa Dakar dañoo ñëw waa Louga yi dañu daan dañu daan bett quoi. da leen daan bett mais. daaw waa Louga dañu amuñu fuñ toog parce que waa Dakar dañoo commencé naan di game <laughs> voilà ñoom aussi maa leen di big bu baax ñu ma jàppale ñu ngi préparé ñoom aussi pour ñëw support ma et euh, sama sama sama ngërëm du ma ko yemale ci waa Louga ci Sénégal yëpp laa koy yemale laa koy boolee quoi parce que ñëpp a may jàppale mhm. toute la jeunesse euh, région yëpp euh, animateurs yi des yoo xam ne mosuma leen gis mhm. ñu ngi may support ci seen ay émission sans pour autant sax ma ñaan leen ko quoi mhm. donc maa ngi boole di le d'ailleurs sax en de l'extérieur euh, am na benn date boo jàpp aussi à la Bellevilloise pour euh, Sénégal yi parce que ñoom it la demande à chaque année dañ naan ñoom it bëgg nañ seen foog ñëw ah, en fait waaw loolu moo nekkoon suñu objectif l'idée c'était de ñu mën le show of the yóbbu l'international mm-hmm. et cette avec Chaïm bu ñu c'est la première fois que show of the war a Dakar dem à Paris mm-hmm. donc a plateau pour représenter pour samay rêve à chaque fois que je vous en rappelez je vous disais que ni mon rêve c'est de jël chose de vieux bateau et là c'est mooy nekk mm. tous les sénégalais yi nekk à les africains ñëpp nañ ñëw jàppale ñu si suñu objectif aussi mooy depuis boobu ça fait bi mooy neuvième édition ñuy liggéeyal rap Galsen léegi il faut ñu jéem a teg yeneen jéego yu gën a mag donc ren la ko yàlla tudd avec Chahine a réussi ça donc c'est c'est c'est bien quoi. Mhm, voilà euh, donc ñun ni ñuy accueillir maître Gims fii Sénégal noonu la ñuy ñaanee tout le temps nos jeunes artistes là ñu leen di accueillir noonu euh, buñ dee dem ci euh, yenn ci dëkk yi alors dañuy ndekki jagal leen mu defoon ñu ko doon nekki ak ñun tey euh, ci télévision Futurs Médias parce que c'est tout un peuple qui prépare cet événement wax naa ko sax c'est devenu euh, euh, un festival de hip-hop c'est devenu l'un des plus grands événements hip-hop fii ci Sénégal dafa dem ba bokk ci agenda culturel bu Sénégal bi loolu ñun suñu fierté la parce que boo nekkee ndaw gis ndaw buy teg ay jéego yoo xamante ni yokkute la rek pour Sénégal mënoo lu dul rafetlu ko donc on écoute un titre et puis on se retrouve juste après ok un grand événement boo xamante ni. Euh, ce sera un événement King FM euh, d'ailleurs léegi nii bu ma jeexalee yeewu leen bi dinaa jóge fii monument de la renaissance euh, dem Almadi gunge leen ci King FM 99 point 4 ba 14 heures donc en paraté nit dof tey mooy suñu invité je que am na sujet bu am solo boo xam ne ñi dañ ci bëgg a ñëw léegi nii ak moom. Mmh. effectivement liñ ci bëgg a ñëw mooy actuellement li xew li buzz actuellement mooy rap Sénégal yaa ngi wax wax mois de décembre bi ci concert yooyu c'est bien. Mmh. mais actuellement a porté rap Sénégal actuellement ci buzz diggante rappeurs yi yow nag ténor nga nekk nga koo xam ne ñu respecté nga ku ñuy déglu bàyyi xel nga et ñu sa xalaat léegi noo gisee eh, clashante bi am eh, actuellement ci rappeurs yi wax ñu sa eh, xalaat nit dof nit dof wax ñu sa xalaat wala boog est ah, <laughs> non vous rappelez ça ah, pour ma laat wax ñu sa xalaat quoi donc dañu wax xalaatam ci euh, situation bi mu demee. waaw non man sama xalaat si loolu moom mooy ku ma xam-xam ni euh, ça ne me dérange pas les clashs mm. c'est quelque chose qui fait partie du hip hop mm. euh, exercice la rek mooy bàkku mm. soo bàkkoo ba ni maa fi mën attends-toi que keneen ñëw wax loolu mooy indi clash donc on doit le faire avec la manière même les grands les plus respectés du game def nañ ko mais ils l'ont fait avec la manière après même ñi nekk si hip hop bi aussi ils vont payer les pots cassés quand ça déborde quand parle des mères. Mhm. nit ki tu ne peux pas parler de sa mère c'est impossible. surtout ngay saaga ci Sénégal ñun yi ñoom tamit. exactement ah. fa am yenn limites yoo xam ne boo xasee ba dépassé rek. cela ne rend pas. Euh, service au rap Galsen parce que étiquette bi am na ba noppi te mu ngi commencé woon di deñ bu ñu delluwaatee ci trop d'insolence kenn dootul bëgg sa doom déglu rap kenn dootul bëgg sa doom fréquenté ay rappeurs te pourtant rappeurs yi am nañ njariñ bu bari ci société bi ñi ngi fépp foo xam ne askan bi soxla na leen boo tourné rappeurs yi ngay njëkk a gis donc euh, cette jeune nouvelle génération la il faut du bon travail sérieusement ñi ngi liggéey hip hop ñi koy gën a rendre populaire mais nag parfois ciy jaawale euh, euh, excès d'insolence et d'arrogance ak ak yenn yi daal donc man damay ñaawlu nga tudd ay yaayu nit complètement euh, y a des choses codées yoo xam ne jeunes yi mën nañ ko comprendre. voilà mais nag boo ñëwee flagrant nga saaga ay ay maire plus personne va écouter le rap. Mm. boo xoolee réseaux sociaux yi kenn nawlootuñu ndax yenn saaga yi. donc euh, je veux pas trop pointer du doigt un mm-hmm. mais nañ wàññi daal côté bu insolent bi de trop. Mm-hmm. et que mu reste un vraiment entre jeunes. ndax di répondre ndax nit dof ñun xam nañ la ah. clash parfois yaa koy sax entamé euh, te ku la wokk nga ruuj ko léegi là tu te sens visé euh, fetalam la bu gudd jotee ko ko tooj mu dem fëgg la tiire la man yooyu laa bëgg di def sax léegi am sama métrailleuse <laughs> classe Bouba nduur gi ko ma ci tooj rek bu gudd jotee ma dem dootuma ma yooxu fii dem fekk na sa kër tiire la ba nga bopp bi toj naaj naaj yuur yi génn ngay dulleeku waaw ah. Ah, ah, bàyyi ko waa calmé wu waa calmé wu Pape Cheikh instant yi moom clash da la ñuy woowee biif parce que personnel la non man moom man nit laa rek si game bi laa bokk je ne suis pas intouchable donc su amee ay pics yu ñëw si man wala de ay trucs ciblés yu ñëw si man du moment que ça dépasse pas la ligne rouge et que ça reste des mots juste pour me taquiner des choses comme ça damay xam que ni si game bi la bokk ça ma me dérange pas trop mm-hmm. j'accepte pas le manque yenn de respect yi mais suñu ma clashé je me écoute fii nga toll si game bi sa cër nekkatul loolu ay tolluwaay la quoi bi nga suy tolloo li nga waroon def yëpp def nga ko moi je suis assez fédérateur guddi toll nii lu mën ne ay album de album je suis de jël rap galsen bi aussi di ko jéem a yóbbu à l'international ko def festival exactement ak la cette relation là que j'essaie d'entretenir avec la jeunesse mhm. ci sama réseaux sociaux yi muy euh, samay prise de position yi ñu ma xamee mhm. su ma ko boole yenn détails yi gudduñ toll nii àndul donc du coup j'essaie d'esquiver dégg naa lépp nag li ma ci moom xam naa ko waaw waaw après bon ma waaf rek bàyyi gars yi ñu <laughs> voilà ci maturité ci waxam ci. ba ci sol bi sax. merci et parfois day dem sol mbaxane bu rouge bi. nit le dof léegi nit la waaw lan moo xew ba nit jékki-jékki am benn maturité boo xamante ne moom la moom la génnee parce que autant pour balaa ñu la classe sax nga defante ak ñoom mais léegi tu dis tu laisses passer. parce que bi neexoon fu mu jógee. àdduna ah, la loolu la. soo nekkee société da dem ba société bi dafa am lu euh, muy teg sa épaule responsabilité lay mujjee nekk parce que dafa am loo jëf jëflante ak ñoom am fuñ yóbbu nga fay jëflante ñoom ba am fuñ yóbbu léegi il faut nga nangu responsabilité boobu parce que da nga ko ah, am bi quoi ñoom ñoo la ko dénk booy wax ñoom ngay waxal parce que da dem ba ni da ngay représenté lii lii donc du am na yu bëri yoo xam ne nii soo koy def da si bàyyi xel benn àq donc tu donc dafa am benn benn benn ligne boo xam ne mënatoo ko ak loo xam ne da ko war a incarner mhm. parce que dafa am société bi foofu nga leen toll te yow nee nga leen loolu nga bëgg a donc loolu daf lay pousser obligatoirement que tu sois mature parce que adduna aussi loolu la jéego kanam wala jéego ginnaaw voilà jéego kanam ngay demee alors <laughs> bëggoon nañu yendu ak yow mais malheureusement émission baa ngi ngi baa ngi bëgg a jeex de euh, Nitdoff pour le public sénégalais de façon générale que ce soit tes fans c'est-à-dire même ñu dul ñu dul déglu hip hop dañuy consommer Nitdoff euh, lan lan ngay joxe comme message en attendant euh, événement bi. waaw sama message bi déjà damay big up bu baax groupe GFM bi yëpp. parce que franchement jàppale nañu bu baax. si comme bi c'est Jaga aussi ñu ngi koy big bu baax a baax ñëw na jàpp si bu baax a baax. King FM aussi mm. bi tooj ko def ko seen affaire amuñu seen fay. merci maa aussi aussi tout le mouvement hip hop. Ah. équipe bi mooy liggéeyal Chaim bi nga xam ne moom mooy promoteur bi moom ci hip hop. Hmm. ak suñu gars yi nga xam ne yëpp ñu ngi jàpp ci affaire bi quoi lu mooy bëgg wax rek Sénégalais yi. Hmm. mooy euh, surtout la jeunesse. Ah. Euh, xale yi nañ yar mag ñi quoi. solo ah. loolu moo am solo. xale yi yar mag ñi.

mag ñi la donc xale yi amatuñu référence donc nañ jéem a xool ñoom naka lañ jubantee mag ñi bu mhm. diñ toll nii Sénégal xale yi ñoo war a jubante mag ñi mhm. donc je fais un gros big up à cette euh, consciente qui en train de prendre ses responsabilités mhm. ñoom ñoo war a mën a defar Sénégal ñoom ñoo war a mën a soppi les choses y a des mag nag yu sage dëkk boo dem am na lu baax am na lu bon y a des mag yu sage mais en tout cas l'élite en général dans sa généralité il y a beaucoup plus de mag yu yàq que mag yuy defar mhm. donc c'est à la jeunesse sénégalaise de prendre la responsabilité mhm. de dimbali réew mi de euh, jubbanti gaal gi mhm. pour que suñu avenir mën a mën a mën a gën a nice le message est très fort avec Sidex je pense ci teg dara dañuy jeexal exactement voilà et puis on le retrouve pour cet événement ce sera un événement King, King FM nous on sera de la partie euh, télévision Futur Média day accompagner euh, Nit Dof mm. c'est une fierté voilà et ce sera une exclusivité boo xamante ne ce sera la radio euh, King FM y aura toute l'équipe déjà pour l'accompagner mm. euh, durant cette neuvième édition euh, mais nag comme li ñuy wax rek incha édition boo xamante ne sénégalais yëpp yëpp ñu di ñaan man nag mon message c'est que les gens qui viennent tôt waaw nañu teel a ñëw mm-hmm. comme ça voilà waaw nañu teel a quoi loolu moom suma message personnellement na ngeen teel a ñëw parce que ñun dinañ teel a installé rajo bi installé yëpp yéen na ngeen teel a ñëw ñu comme ça euh, artiste bi mën a teel euh, ñu def suñu concert ba nu mu ko tàmm di defalee quoi en rendez-vous euh, Nit Doff et puis rendez-vous euh, le 20 au stade. voilà et à demain à demain sinon voilà à demain. incha allah merci Saedex Modou Ndiaye à demain. jërëjëf à suba incha allah Madeleine. À vendredi. À vendredi. Euh, merci Bijouzi, à demain. Merci à toi Pape Cheikh et wax ñi de dons édition 2019 pour pouponnières yi commencé ñu mun ngeen woote ci 78 196 34 34 wala ngeen woote ci 76 198 68 10 et puis dire Ibrahima Parfumerie ku jënd benn parfum di nga am benn trousse bu ñu la may ak ñetti échantillon leen ko ci Facebook Ibrahima sur euh, euh, Snapchat. mu merci nit dof merci à tous on se retrouve demain 8h pour Yeewu Leen félicitations encore aux équipes yu télévision Futur Média encore sondage buy dëggal ni euh, ñun ñun ñooy number one première télé fii ci Sénégal RFM première rajo fii ci Sénégal et c'est grâce à vous chers téléspectateurs ñu ngi leen ciy gërëm bu baax xam naa ni du ñu ne guléet parce que d'habitude fu ndam amee dañ naan pat euh, mais bu bu tay bi noom bu tay bi dinañu ko euh, célébrer ak yéen ñi nga xamante ni euh, yéen fidèle ci suñu ay programme merci à toute l'équipe de production dirigée par Tonton Mac à demain

polite ñun gube rek ni gëj a féete léegi tey sa bët la homie tey sa bët la ñun dara doo tere ba duñ la ko souhaité happy birthday booba xarit àndandoo ñu féete béegi بدي خبيث مثل بخاري مثل خاري بس بي ستنا خاري من نوت توتي من نوت نوني Yeah, but I'm busy You end up glory ستنا خاري Baby, you deserve it Oh, yeah, yeah Keep calm and be happy Oh, ah, ah, ah. Turn up, turn up Somebody, I'm